أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وصلاة وسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وجعل لساني وقلبي ساكريك معا indal mamaati ma al imaani yàllaahu bokk jullit yi ginnaaw ba nu sante yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara ci nuyoo bi gën a tedd mu di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu bu baax a baax di ziyaar sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu may ko wér ak budd fan ak mboole mu jullit bi nga xam ne ñu seetaan ci seen télévision Touba TV am mbégte bu baax baax nak and ak yeen ci weeru tedd wi nga xam mom modi moo di tay nak tombé ak ñetti fanu safar waye nak ci émission yu am solo yi nga tu bati Touba TV dañ leen ko indil mu di mbégum safar tay nak ñu fas yéene ci and ak yeen yu ay tomb yu am solo dinañ ci and itam ak euh, soxna May Jenn mu sëñ Cheikh isa Jenn and itam ak soxna Aram beng Murtada nga xam mi ngi nekk ci euh, Al Azhar bu keur Massar nek fa directrice nañu ànd ak moom macha allah ci waaye itam ci euh, waxtaan boo am solo bi nga xam ne fas yéene nañ koo indi waaye itam ci ay euh, maanaam euh, image yu am solo yoo xam ne des na ko fi wane incha allahu rabbi su ko defee ñu ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi déggee saa su nekk rek télévision Touba TV ñu bokk ci waxtaan ndax xam ngeen ne weer bi dafay weer woo xam ne weeru sant yàlla la weeru mbég la ndax Serigne Touba moo waxoon ne saa yu weer wi dellusee na ngeen ma santale borom bi subxanahu wa taala. ba tax na ñuy ànd ak yéen rek di sant suñu borom tabaraka wa taala comme ni ñu ko waxee woon ci jàng alquran ci jàng xasida waaye ci bernde waaye ci tudd yàlla ci lépp loo xam ne daal dinañ ci am ngërëmal suñu borom am ci ngërëmal sëriñ bi eh, des na lañ ko ànd ak yéen incha allahu rabbi comme niñ ko fas yéene defee saa su nekk rek premier safar ba fukki fan yi ak juróom-ñett comme ni ñu ko waxee woon ci baytam yu am solo yooyu خربت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر سفر إن شاء الله ربي نجي عند أجين بجم فلنغا خمنا مودي توبا موتاح عند أجين كي سين إسبسيال سفر سوخنا ماي نيغلي نيو باخ زيارة في تي توبا تيفي نيو بايلة خمنا نيجي عند أجين تي إميسيون أعوذ بالله بسم الله اللهم صل على رسول الله أفضل خلق الله المسمى بعبد الله وعلى آله وصحبه وسلم يا الله واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا بارك الشيخ محمد المرتضى ابن خادم رسول بوكو جريري بوكو طالبي بوكو تلسبكتاتر سيتان سين تلفزيون توبا تي في نولين دي نويكو تنك نويكو جنا تد تبرم ديغل نويكو نجلين نمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوي وبا يوصحنا جميلة la ziar bu baax ci weeru safar gu tedd gi ñu nekk mm-hmm. waaye di nuyu bu baax suñu mag suñu jëwriñ waaye itam mm-hmm. suñu xarit mm-hmm. suñu lépp soxna Aram Mbeng Murtada moom di ko ziar di ko jox wàccu waayam dañ lay delloo kàddu gi ba ci kanam jërëjëf euh, May Dieng ñu ngi koy delloo nuyoo bu baax a baax di ko jiyaar bu baax a baax di ziar itam euh, fa nga xam ne foofu la jógee mu di Lamp ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp soxna Aram ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la masawu coono yi di la bàyyi nga nuyoo ginnaaw bu ñu nuyoo sang bu tedd bi nga xam ne moom moo di sëñ Lamine macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar moom it. aouzu billahi samiil alim min sharri shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum barke Cheikh Mouhamadul Muqtada soxna Jamila ñu ngi lay fay nuyoo. Mhm. di la ziar di mhm. ziar mboolem koo xam ne mi ci kër gi. Mhm. ñu tàmbalee ko nag ci kilifa gi. suñu mbàkk ñu ngi koy ñaanal bu baax. Euh, di ziar soxna may jenn suñu xarit suñu jëwrin moom it. ñu feggool tey ji ak képp koo xam ne fekk nañ la fi rek ak képp ku ñu teewlu ci jamono ji. jërëjëf euh, soxna Aram Mbengue Mourtada comme ni nga ko waxee rek ñu ngi nuyu borom kër gi bu baax a baax ndax suñu borom ma wax ci alxuraan. waxatul abwaaba min buyootihaa boo dugg ci kër jaar ci bunt ba suñu papa alaaji bàkk yi fay ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di ñaan suñu borom may ko kattan ak wér moom mën a yeggale liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi ci loxoom kon xam naa ne mbokk yi rek incha allahu rabbi fas yéene nañu ànd ak yéen euh, ci bayit yu am solo yi nga xam ne Serigne Gana Messere incha allahu rabbi ci kanam tuuti dinañ ca dem waaye dañuy bàyyi rek soxna May mu daal di ñu ubbil Euh, ci weer wu tedd wi nga xam ne moom moo di weeru safar naka lañ ko war a dundalee naka la sëriñ bi waxoon ne su yegsee nañ ko dundalee noonu. Ah, jërëjëf soxna Jamilatu di eh, nuyu bu baax comme ko waxee suñu papa El Hadj Mbackiyou Faye mi nga mm-hmm. la ci ñun waaye itam mm-hmm. ci ñun comme nañ koy waxee rek di jëwriñ ci bépp bépp murit boo xam ne yaa ngi fii ci Ndakaaru mm-hmm. di ko jox wàccuwaayam bu baax di ko ñaanal yàlla euh, taxa yàggal taxawaayam bu a mottali yéeneem ci sëriñ bi waaye itam comme ni nga ko waxee di nuyu bu baax kër ga ma jóge waa Lamp di nuyu suñu jëwriñ itam sëñ Aliou Thioune moom it di taf ziar bi rek moom it ak ñaan yi comme ni ñu ko defalee suñu waajur sëñ Mbackiyou comme ni nga ko waxee safar doon weer woo xam ne yi comme li ñuy wax. Mhm. xëy na bis 18 safar gi moom moo waral. Mhm. Euh, moo yóbbaale weer weer weer wi yëpp ndax bi. Mhm. barkeel bu mu barkeel. Euh, xëy na li ñuy wax sëñ Tuubaa lu laal moo gën lu mu laalut. xëy na bis bi am solo gi mu am solo muy fukki fan ak ñett ci weeru safar. comme ni ko waxee sànq ci bayit boobu xaritu yow ma sabti saamina achar. li xidmatil muxtaari fi chahri safar. comme ni ko ku tedd ki na loolu moom moo. moo ba egg ci weer yëpp nga xam ne bu tàmbalee premier safar. da ngay gis ne murid yi kenn dootul toog kenn dootul taxaw. Euh, ni nga laaj na nag muy nuñ ko war a màggalee ni ñu ko mhm. war a màggalee mooy mhm. ni ñu a ni ñu war a jaamoo yàlla rek ni mhm. sëriñ bi santaane comme la mu wax ca gàmmu ga tanzimuhu bi sunnati yaxuduna lil jannati ba bëri jeex mooy màggal ko ci sunna comme niñ koy defee jàng alxuraanul karim jàng xasida waaye tamit bernde loolu doon lu ci am solo loo xam ne xëy na buñ du gënee xóot ci waxtaan wi dinañ ci gën a dugg ndax ay na amaana am na ay xeetu màggalin yoo xam ne léeg-léeg ñu gis ko surtout ci ñun ndaw ñi te sëriñ bi xëy na mën am santaane na ko noonu waaye amaana bëggee wuñ ko noonu ndax léeg-léeg mhm. xëy na sañ sa yeeg yooyu yëpp am na solo waaye dafay mel ne mhm. di ko def ci ni ko sëñ bi bëggee daal mooy di ko benn ndax sëñ Tuubaa ba muy ba muy wax nañ ne mhm. bi mu nekkee ci njaareem foofu la njëkk a màggale wax nañ ne sax mag ñi dañ daan wax tabaskiwaat mu ne bu kenn waxati tabaskiwaat day leen wax màggal kon baatu màggal ci kàddu ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul la jóge waaye itam lañ njëkk def ci màggal mooy gàtt bañ ca njëkk a sañ sëñ Tuubaa ko njëkk a def kon kenn taxaw kenn njëkku ko cee def moom sëriñ bi te wax na itam bu dellu see na ngeen ma ci santale sama borom ndax waa waa àjjana sax dinañ xam ne tey jii nii bis ba dellu si na kon loolu dafa doon loo xam ne lu am mm-hmm. solo la mm-hmm. euh, ñu war koo bàyyi xel bu baaxee xëy na mm-hmm. bu ñu gënee xuus ci waxtaan wi dinañ gën a dugg nag dëgg-dëgg naka la murid yi war a taxawaaye ci màggal jërëjëf jërëjëf sa soxna May Dieng macha allah am na solo comme ni mu ko waxee rek waaye dafa mel ni euh, am na ci mbokk taalibe yoo xam ne soxna aram dañoo desee comprendre waxi sëñ bi ci jàng alxuraan jàng xasida euh, ci tudd yàlla bernde waaye dafa mel ni kii nit ñi dañoo bëgg a gën a bàyyi seen xel ci mbiru Touré Touré yeeg kanji kanji yi maanaam benn bi daal lañ gën a fonk kay jàng alxuraan bay xasida yi te foofu noonu il faut ñu ñaaxaat ci mbokki taalibe yi ndaw ñi jigéen ñi nga xam ne su waa weer bi di waaja teru ñoom liñ koy waajalee mooy xeesal beeg nees beeg yu demee noonu il faut ñu gën leen a ñaaxaat ci ni ñu war a waajalee màggal gi tàmbalee ko ci benn fanu safar bu fukki fan yi ak juróom-ñett. waaw jërëjëf soxna Jamila. Mm-hmm. ñu lay sant bu baax. Mm-hmm. ñu ngi ci weeru màgg weeru tedd. Mm-hmm. weer boo xamante ni suñu wasila Cheikhul Xadim nga xam ne lépp luñ am tey rek mooma dëgg la nga xam ne képp kuy yeewu rek sa bakkeen di nooyi saa yoo xëy war nga ne jërëjëf suñ tuba ndax ba muy dem ñëpp la demal demalul murit demalul tijaan demalul xaad demalul layen islam ko taxoon a jóg liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga waxee rek bis bi daf ne nañ ma ko sant lay moo tax mu ne chakatu rabbi daa yoon lu kulli man wajjaha lil ihsaan fi kulli zaman dëgg la kon nag sant googu nan lañ koy defee nañ ko teg ci jaamu yàlla comme ni ko soxna may waxee jàng alxuraanu karim mhm. ku ne xam ne sëñ Tuubaa ak alxuraan ax faal yasiral masunallah mhm. mbooti xuraan ci boppam sëñ Tuubaa nee na suñu borom dénk na ma ko mhm. kon li ñu war a njëkk a def mooy di màggal ko ci jàng alxuraanu karim fonk ko nag ndax mu murid di am na si ñu bëri ñu koy sàggane ñoom jàpp nañ ni comme ni nga ko waxee berne ba soxna yi sax jàmbaar lañ dinañ dem ca waañ wa waañ wa nag baax na waaye xëy wàcce kaamil dégg naa sax ñu ne sëñ xaa joxe na ndigal képp koo xam ne ab taalibe nga nga wàcce ñetti kaamil balaa màggal gay egsi defe naa ni ku ko mënul tamit mhm. na nga fexe ba mhm. euh, jàng benn mhm. wala li nga ci mën rekk faqra uma taysa min alquran moo gën nag bañ koo jàng dëgg la wallaay maanaam màggal gi moom li nga ci war a njëkke ma jàng alquran teg ci xasida yi teg ci bernde waaye ormal dëkk ba soxna Jamila xam naa dinañ ci gën a ñëw waaw ok jërëjëf macha allah jërëjëf euh, soxna Aram Mbengue euh, am na solo comme ni ñu ko waxee rek sëriñ bi bi muy dem demalul boppam waaye dafa demal mbooleem bindee fii lim bind bàyyi fii tam daf koo bàyyi ndax mboolem mbindéef fi ndax wax na ko daa am ni ilal xat nasihatu lil wara kon mu mel ni kii euh, macha allah loolu moo tax mboolem umma islam bi yépp war a koo jàppale ci jaamu yàlla bi ci topp yàlla waaye ci ragal yàlla comme ni ko Serigne Mountakha di waxee xam naa nag dañuy ànd ak sëñ Mbacke Mbodj Mbodj euh, dem ci euh, régie daal di jëli bayit bu am solo bi nga xam ne Serigne Ganna Messere ñu koy ziyaara bu baax a baax di ñaan yàlla defal ko tawféex Euh, am na ay béy bu am solo boo xam ne indi na ko ci téere bi nga xam ne sëriñ bi mi ko bind tëggee ko ci aouzu billahi mina sheytaani rajim mu di baat bi nga xam ne moom moo di mu di béy bi nga xam ne moom moo di billahi faaraxtu nasara jeewali wa xayrihi qataan bila tanawuli ñu daal di koy déglu daal di dellu si waat incha allah nag dañ leen di bàyyi daal di ubbi téléphone bi su ko defee yéen mbokki taaliba yi ñu daal di and ak yéen bokk ak yéen eh, jotaay bi ndax am na borom xam-xam yoo xam ne macha allah ñu ñuy seetaan ko defee bëgg a rek mën a jaar ci 88 628 08 18 incha allah ñu daal di dem dellu si waat. mbokk yi ñu ñëw fas yéene ànd ak ci xasida goo xam ne sëriñ bi ci boppam moo nu ciy nettali yoon wi fi mu jaaroon bi muy dem ci liggéeyam bu mag boobu nga xam ne loolu liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy xasida a'adhanil baaqi shaytaan eh, mbokk yi dafay xasida gu yéeme goo xam ne sëriñ bi def cee tàmbalee waxin wu yéeme waaye moo nu waxal boppam béréb bu mu jaar bu ci nekk nga xam ne tudd na jëmi béréb ba te béréb yooyu dafa nekk histoire yoo xam ne yu yéeme la ci liggéeyub sëriñ bi ci tukkeeb géej gi sëriñ bi dafa tàmbali wax aoudu billahi min asheytaani nga xam ne ba muy tàmbalee aadani lbaaqi min asheytaan nga xam ne xasidaam googu dafa tàmbalee ci bi mu musloo seytaane ba noppi nag dafa wax ne aoudu bi aadani lbaaqi min asheytaan inda mamariya wa fi l awtaan dafa wax ne yàlla mi nga xam ne mooy aji des musal na ma ci seytaane ca sama jaaruwaay ya muy yoon yim jaar ak ci samay dëkkuwaay samay dëkkaale nga xam ne kon yoon wi mu jaar yëpp yàllaa ko ci mucc ci seytaane waaye dëkk yëpp it yàllaa ko ci mucc ci seytaane lu tax mu ne ibadati ibtadatu bismillahi wa huwa kafaani dawil malaahi mu ne kat ci turu yàlla lay tàmbalee sama jaamu yàlla sama borom te loola yàlla moomu nag moo ma fegal Euh, ña nga xam ne ñooy boroomi boroomi po te mooy yëfar yi daal di tàmbali wax ne wajjahtu kull alhamdi wa shakur li maliki rahmani wa jëmale naa yépp cant muy cantuk làmmiñ ak cantuk cër ak saxaluk cant ci al maliki mu yàlla mi buur di aji yërëm ku ko soob tey mu ne wa shakur te yayoo cant ga nag moom yàlla suñ borom mu sax dakk mu daal di tàmbali na ne dakka rahimu bin nabi rajimi wa alihi wa sahbihi nujum mu ne rey na rendi na kan moo rey kan moo rendi rahimu yàlla mi nga xam ne mooy yërëm ku ko soob rajimi samay seytaane man amatuma seytaane man Serigne Touba amatuma kan tëkku man Serigne Touba lu tax yàllaa ko rey ci darajey kan bin nabi wa alihi wa sahbihi nujum ci darajey rasulullahi salallahu alayhi wa sallam waaye ak ñoñ yonnati bi alayhi salatu salaam ak sahabaam saxaabaam ya di biddiw kon nga xamne sëñ bi mom amatul seytaane seytaane mi wara yakal nit neena na yàlla nee yàlla rendi na ko rey ko ci darajey rasulullahi salallahu alayhi wa mu daal tuddu premier étape bi nga xamne nak moy ñeël beenu dajeb señ bi ak nasaraay xam nga li ñuy wax ne señ bi jeewal la ak tubab bi waye deeng mom da ndeke neena fala falaa tàggoog بالله فارقت nasara جاولي وغيرهم قطعا بلا تناول bila بي دا bi dafa wax نصران بي na maag تي لودول ماي جيل اي lu nga xamne budé ci fële dafa xamne ayé ayeesa mi ne laa inde jeewali ne mu nasara jeewali wa ghayrihi qat'an bila tanawuli iblis day dugg ci bir kon tàggoo na Euh, nasaraan bi ca jeewal ci lu dog ci lu dul may jël ay gànnaay kon ñoom yoroon nañ ay gànnaay di ma song waaye man not naa leen te yoruma gànnaay nga xam ne bu ko sooboon kon jël bennu euh, sëriñ bi bu ko sooboon mi tukki bi mënoon naa yem ca jeewal loolu sax am na fu ko sëñ Musaa Ka wala fa la wax ne masoon naa fanaan jeewal ba muy dem ci jay shashin ñu won ko fa lay xaloo xew ba dem Tuubaa mais mënoon naa wàññi koo foofa waaye kon daam yi mu am boole geroo lay Serigne Touba kon day mel ni bu ko neexoon foofa dafay wàññi ko kon moo tuddal boppam étape bu boobu di jeewal nga xam ne tubaab yi ñoo ko fa jël si woon ànd ak 250 SPI ci 4000 cartouches ak ka jiitee woon yëf ya di Leclerc waaye mu na nag giñ naa ci yàlla tàggoon na ma ak nasaraan ca jeewal kon bi muy ànd ak ñoom di woy lu xew moom nee na tàggoon na ak ñoom billaahi la wax keroog ba mu lalee jërëjëf sëriñ euh, Gana macha allah am na solo euh, ci bayit ba am solo boobu nga xam ne leeral na ko ci diggante sëriñ bi ak nasaraan yi fële ca jeewal euh, dégg ngeen ko ni mu ko waxee noonu ba muy tàqalikoo ak nasaraan yi amul benn li nga xam ne moom moo di xuloo mbaa xeex tàqalikoo nañu ci jàmm wax na ne sax keroog bi nga xam ne nasaraan yi ñu ngi ko jël si ña nga tase fa li nga xam ne moom moo di jeewal euh, te keroog xamal na leen ne sama borom kat nee na fii laay fanaan waaye yaakaar naa ne nasaraan yi xamuñu lan moo leen nelawloo te keroog ba bët set jotee sax sëriñ bi moo leen yee jiitu leen euh, jëm fa nga xam ne fa lañ ko doon yóbbu kon loola kéemaan la goo xam ne euh, nit ki war naa mën a taxaw xalaat ci loolu ngir mën a xam kéemaan bi nga xam ne moom la fa suñu borom def di sant Serigne Touba rek eh, ci ak jàmbaaram waaye di ko sant bu baax a baax ci kéemaan yi nga xam ne sunu borom defal na ko waaye itam ci natt yi nga xam ne teg na ko mu nangu ko lool ngir jaamu yàlla yi. yaakaar naa ne tey moo tax kenn ku nekk rek mën a lëmbe ci diine l'islam bi nu la neexee mun koo jaamu te jaar si jaaru sa ginnaaw wax nañ ne nasaraan yi dañ koo jiitu eh, ci jëmm yi waaye mu mën leen ci xol yi ak xel yi kon loolu lu ma lu am solo la soxna May. xam naa ñu bàyyi rek nga euh, wax ñu naka nga déggee ci bay bu am solo boobu nga xam ne seen Gana tey leeral na ko mbokki taalibe yi <laughs> jërëjëf soxna Jamilatu di santaat bu baax itam sëñ Gana Messere moom it doon mbégte ci ci murid yëpp waaye tam doon mbokk ci ñi nga xam ne sëñ yàlla da ko fayee sëriñ bi mm-hmm. da gis ne sëñ Tuubaa fa mu teg yàlla rek la ko murit yi teg waaw fu ko raw ndax yàlla li nga ko jox rek la lay delloo ndax nag ndegam ndegam ñun doomu aadama rek ñu am fulla tey jii bu ma la fonkul faalewu ma faalewu ma la dooma dooma dooma respecté gën na ki nga xam ne mooy Cheikhul Khadim te damay faral di wax soxna Jamilatu ne nit kii boo xamul lu mu doon xam ne sëñ Tuubaa lan la man boo xamul lu doon sëñ Tuubaa du nit mënoo ko wax yàlla mënoo ko wax yonent mënoo ko wax kenn xamul lu mu doon nit nag boo xamul lu mu doon te sa àdduna ak sa àllaaxira yëpp ci moom nga ko wékk danga jox ko laaj tam fam la jaarloo nga jaar fa ndax mhm. li ñuy wax doo ma yaakaar ba pare yàpp ma moo mhm. yaakaar sëriñ bi sa dund sa noyyi sa lépp mhm. ci moom la ne ba noppi lim la sant doo ko def lim la tere doo ko bàyyi na ca la neex ndax comme ni ko waxee euh, jaa u jannatin bi laa taati ba bayit ba jeex maanaam képp koo xam ne da ngaa euh, mm-hmm. gis àjjana joo xam ne mm-hmm. da ngay def lu la neex maa nga di ko wax maa nga ne ca la la neex bu la mm-hmm. neexee nga dem ci waaye man aw ma ko moom Sëñ Tuubaa amul euh, kon xëy na nax suñu bopp léeg sama classe gi nax suñu bopp moo fi ne ak yaakaar ëpp ndax ñu si bari comme ni ko sëñ waxee am nga Sëñ Tuubaa euh, na ko yàlla musalee ci saytaane fi amul kenn ku fi mën a yëkkati sa loxo waat ci yàlla ne mucc nga ci saytaane lu waaye baax baax lu wàll yu baax baax ak lu mu mënti nekk xut boo xaw soo koo mën a doon seytaane moom bis ñëw na def loola loo xam ne mhm. boo jàkkaarloog sa borom di nga ko ruus ba mu des sëriñ bi moom rek moo mën a yëkkati loxoom ne mosumaa mhm. def lu yàlla dima lu ma yàlla di toppee mosumaa mhm. wax lu ma yàlla di toppee ndax xam nga ne euh, yàlla musal la ci seytaane moo moo moo waral lii yëpp ndax amaana bu ko yàlla mu bu li muy wax noonu xëy na bu ko yàlla defalul woon mm-hmm. sëñ Tuubaa xam nga ne julli ci man de euh, vraiment julli ci piscine sax yow dégg sax boo ko rombee boo ci duggee lab mm-hmm. sëñ Tuubaa wax nañ wax nañ ni wax mbaa ndox mu taa mbaa <laughs> ndox mu taa yow ko imagine ñu yóbbu la ci digg océan nga sànn julli jot nga sànni sa der mm-hmm. taxaw ci der bi mu wóor la ni yow moom wax na ni sax amul woon sax yaxeen ni ndax der bi dana dana ma dana dana suuxam dee waaye doyloo gim doyloo boroomam ak gëm ki mu ko gëm ak it bañ a faat waxtu moom moo wot ak it bañ a julli ci ñooñu xëy na loolu neexu leen mu di leen tooñ moo tax mu def loolu waaye ba mu ba mu ba mu gis nañuy wax yàlla boo ko joxee sa lépp mu tey la sa lépp gis nga soxna jamilatu nit ñi nañ bàyyiwaat xel ci loolu bu baax sëñ Tuubaa mi ñu jël léeg-léeg di ko di ko di ko maanaam di ko di ko teg foo xam ne xëy na euh, nekku fa mhm. sëñ bi fa mu ne ma fa ba léegi fa yàlla ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne rek fa la ne li mu wax muhammadul mustafa xayril wara raradi fi kulli shay'in wa ma yaa baaxu mhm. fa bi nekk la la nekk moom Sëriñ Tuubaa lam yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci la nekk kon xasida gi nga xam ne sëñ Gana jëlal nañu ci ay ay lenn ci ay bëri yoo xam ne sëñ bee ko wax mm-hmm. ak it yeneen xasida yoo xam ne boo ko tiimee man parfois damay damay jàng benn xasida damay mm-hmm. jékki-jékki bëgg a yuuxu ndax damay imaginer sëñ Touba li muy wax ci yàlla mm-hmm. dama est-ce que du yàlla moo simmi mbubbam sol mbubbu sëñ tubaa di wax ci boppam nga xam ne da am xam nga nit kenn mënu ko gën a xam boppam yàlla itam kenn gënuñu koo xam que boppam waaye léeg-léeg itam nga tiim ak xasida goo xam da ciy wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ngay jàpp ni ma yow xam nga dafa am soxna aram xam naa ñoom ñi nga xam dañoo def naxu luxa am na ay damair yoo bi daa jàkkaarloo yonent bi nii jaxaran di wax ci moom mhm. li muy te loolu noonu noonu la demee léeg sax man damay xalaat ni est du yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax ci boppam mhm. ndax sëñ bi kenn xamul foo ko mën a natt foo ko natt passé na fa donc loolu nag ñun ngir ñu mën koo ngir ñu mën koo fësal mhm. mooy ñu nekk ci li ko neex amul góor amul jigéen man damaa contre surtout ñun soxna yi mhm. dañuy jàpp ne xëy na murit geeg xidma geeg liggéey sëñ bi góor ñi ñoom ñoo ci war a gën a ëpp passeef duluus gi ñun daal ca waañ ba lañ nar dëgg la waañ bi baax na waaye nag am na foo xam ne moom wax dëgg yàlla waañ du fa xettali kenn am na foo xam ne nag waañ mën na faa dimbali nit waaye am na foo xam ne itam ci alxuraan jeeg xasida yi am na ci solo ndax soxna aram juñu na ko sànq. ñun dañu ciy gis murit boo xam ne day toog weer. benn fan sax bëri na day toog weer te du jàng alxuraan. te Sëñ Tuubaa li mu wax. ci masaalikul jinaan wa mhm. man araadal xurba min mawlaahu fal yaqra il qur'aana laa yansaahu mhm. xultu fa man xultu fa man yurid ila rahmaani mhm. fal yusbitan tadabbural qur'aani loolu la wax képp koo xam ne bëgg ngaa jege sa borom del jàng alxuraan te bañ koo fàtte koo xam ne itam bëgg ngaa am ngërëmul suñu borom santan la del jàng alxuraan te bañ koo fàtte kon daal liñ sëriñ bi def ba yàlla mësul ko ci seytaane ñun mënuñu ko nag waaye nag buñ ko jéemee amaana Euh, mën naa am yàlla dimbali ñu ci seytaane jooju ndeysaan te ni ñu koy jéemee rek mooy euh, fexe ba euh, gëstu bindam yi nga xam ne bàyyi na ko fi yaakaar naa ne buñ ci buñ ko gëstoo xam lam cay wax te topp ca danañ mucc ci seytaane ndax lu ko lu lu lu lu yàlla doxoon ci digganteem ak seytaane terewul téere bu nekk rek def na ci a'uuzu billahi mina seytaane rajim kon soxna Arame ñu bàyyi la rek nga daal di commentaire yoo tamit. waaw jërëjëf soxna May. defe naa ni yi euh, la soxna May li wax rek dafa matale. waaw ñu ngi sant sëñ Gànn bu baax. ndax wax am na solo. Mm-hmm. dafa ñëw ci sëñ Touba ak seytaane. Mm-hmm. sëñ Touba de moom seytaane sori na ko. Mm-hmm. fexe na ba mën seytaane. waaye nag am na fu wax ni fi ma seytaane mënee mooy day fekk ko nga xamante ni na war a mel melu ko mu ne ko demal bu bookee te ñu gis ñu baree bari ci yoon wi ñuy wuyoo sëñ bi di ko mbubboo te fekk duñ dara ci sëñ bi ndax sëñ bi nee na bu ëllëgee ñu bari duñ ma gis ndax la ma nekkoon nekkuñu ca baatu murit saadex nag dañ koy wax ci jamono ji waaye ak jafe mhm. ñu bëreen koy wuyoo ne ci biir te mhm. fekk jegewuñ sëñ bi ndax sëñ bi li mu wax dafa leer loo ma jege jege même boo ma jegee ci deret sax te defoo la la war ka ma sori te nekk ci li neex suñu borom kookoo ma jege kon kooku lislaam moo ko ñor ak diine mhm. nga gis ni mu fexee ba not seytaane kon yow mi nga xam ne yaay taalibeem mom day musta def lu ñu rusloo kon lañ fexe ba bu ëllëgé ay talibem tu kenn du ci def lo xamné da kay rusloo ndax fu ñu taxaw tay ji sañ a tiitaroo suñu sëriñ ak fu ñu dem nak tay ji bo génné Europe li soxna may la ñun xamuñu sëñ bi xamuñu ko néna tuba bi sax xam a xam ñun xamuñu sëñ bi fi nga xamé ni xamuñu sëñ bi moy da ngay dem tuba amna ci ño xamné ne fa dëkk waaye pour ñu dem sax ziaré barab ba defe naa nañ tok ay at duñ fa dem am ñu fay def naka sudul nonu seen war yaram war a daw ñu xalaat sëñ Tuubaa lim daj xolo jeewal rek soxna may xam na ci dara daan nañ mm-hmm. def dem jeewal suñ jaww lañ daan def bu ñu demee tund jeewal keroog bi ñuy ñibbisi ñun ñëpp a doon jooy ndax coono dañoo sonn mm-hmm. jamono bu ba di dem gënoon naa metti mu nekk àll bu wow mm-hmm. ayasa minillaahi anda jeewali iblisa isna day taxu bi yaawali mu metti woon lool yam daj nag yu ci bëree bëri sax nee nañ lu ci bëri ñun xamuñu ko ci ay métit nga gis keroog bi ñu ko dugalee ci kaso boobu nga xam ne dafa dugg rek. Mhm. ñu def ci ay rab tànk bi mu teg rek rab bi ko njëkk a jëm nee na soxna jaara keroog moo ko feeñu ci néeg ba ne ko bul tiit bul ne fu ma jëm mukk bul onk ndax métit mhm. sëñ bi jànkoonteeg lu nekk ñu gis bureau ba ca ndar gis nag bi ñu ko booleeloon. Mhm. lu ne ñu gis ko gaynde géeg yooyu yëpp. li soxna may wax julli ci géej gi. nga xam ne boobu maanaam yaqin bi mu am digganteem ak boromam. man kaana lillaahi kaana laahu lahu képp nekkal yàlla yàlla nekkal xam na ni safara du lakk dara du lore ndox mënta labal nit suñu borom mooy lore ginnaaw suñu borom moom ndox mii te moom mooy lore te it am naa maanaam yàqin joo xamante ni yaakaar naa suñu borom jege gu ma ko jege xam naa ni su ma ci tàbbalee sama der bi du suux loolu tax mu tàbbal ko ci waaye fa mu ci suñu borom la tey ji keneen ku ko defoon dégg naa sax am na ku ko doon essayé jamono yi xam naa da doon da doon sabooteeg yooyu waaye defe naa dañ koo mujj for ci biir ndox mi kon ñu gis ne sëñ bi li mu def keroog maanaam gëm gum gëm suñu borom ak tolluwaayam ci suñu borom kon ñun taalibe li ñu war a def mooy suñu devoir jéem ko ci roy bu baax a baax ak murit saadix fépp fu ñu ko fekk dafa waroon nekk kuñ naan ibaadu rahman waa ibaadu rahman lazina yamshuna alal ardi hawnan boobu noonu ñun murit yi ñoo ko gën a moom sëñ Tuubaa lislaam rek ko ñor waaye ab murit war naa jomb mos naa gis murit boo xam day jàpp ko julli di jàng alxuraan ñooñu ne ko damaa foogoon ni ibaadu nga di muuru di sol lu jot kon dañoo jàpp ne ak murit moom warta jaamu yàlla dëgg la kon loolu tooñ sëñ bi la mm-hmm. kon lu mat a may sandiku la dëgg la ndax sëñ bi nee na na ngeen may tudd yàq sama der yàq sama der nag may mm-hmm. mel na nga xam ne waroo koo mel mm-hmm. ba pare di ma mbubboo te kon loolu képp kuy murit war na koo may tandiku wallaay waaw du ma roy ku baax nag kiiwu seytaane la sëñ Saali waxoon na ko kon sëñ Tuubaa moom seytaane sori na ko mhm. kon ñun ñoo ci des suñ góorgóorlu seytaane soriñu ndax kon nañuy nekk ci peggu sëñ bi te képp ku nekk ci peggu sëñ bi sëñ bi dina la aar mhm. képp kuy gis loo ragal nag xoolaatal sa bopp mhm. tey wujoo murit soxna Jamila <laughs> jërëjëf soxna Aram macha allah tey moom déggati naa dëgg doy na waar de <laughs> macha am na solo yaakaar naa ne sax baatu murit li ñu wax ne loolu la ko sëriñ bi tëggee euh, ku ci nekk yaakaar naa ne di nga mucc ci seytaane euh, yaakaar naa ne bi ci jiitu moom moo di tawxiid Euh, ñaareel bi moom mooy iraada ñetteel bi moom moo di xidma ak himma ak adab te yaakaar naa ne juróom yi ku ko boole moom di nga mucc ci seytaane daal di matale après dañu daal dañu daal di dañ njëkkante ak waxtu wi ñu fàttali leen numéro bi muy 88 628 08 18 dañuy daal di dem Touba rek daal di euh, jëli Euh, maanaam benn fanu safar ba nañ ko doon màggalee foofa noona euh, ca Touba incha allah su ko defee ñu daal dellu waat ci jotaay bi seen émission mbégtum safar ba tey fii ci Touba xam ne moo fi tey ci kaw suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool. Yeah. géej keroog ba mu lalee jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal di ñaanal sëriñ Mouhamadou Mountakha sunu borom yàggal ko fii may ko wér macha allah bu ngeen ko gisee rek jëmmam ji alquran kese la gis ngeen ko noonu ak mbég mi mu àndal rawatina nag ci weer wi nga xam ne moom moo di weeru safar loolu nekkoon benn fanu safar euh, ni ñu doon màggalee guddik benn fanu safar ci jàng alquran jàng ay xasida macha allah di nuyu bu baax a baax Serigne Mouhamadou Bachir moom it di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wér yaakaar naa ne màggal nañ guddi ga ci màggal goo xam ne gu yéeme yéeme la soxna may yaakaar naa ne bu fekkee ne teewlu nga image yi. Ah, jërëjëf soxna Jamilatu di santaat bu baax soxna Aram ndax ñun dañuy am. mbégte loolu dëgg yàlla di bokk ak moom mhm. bokk ak moom plateau damay wax ne senegal dëgg la léeg nit dañuy balaa ñu koy xam mhm. yàlla na yéex mu mhm. wan leen ginnaaw waaye ñu ci bari ñi ngi def ci ci mhm. soxna yi ku mel ne moom. Mhm. loo xam ne mi ngi ci suuf di defar ay xale yu baree bare yoo xam ne macha allah. Mhm. xëy na waaw di jaar bu baax soxna Zeynab di ñaan borom subhaana taala defal ko yërmande fa mu nekk. ndax ñun xëy na yàlla moo moo dogal. nattooñu sax du suñu xam-xam sax. waaye mën nañoo wax ni. natt la eh, waaw nga toog di wax ndax léeg nga wax sax loo xam ne waaw wax loo xam ne sax daanaka matewul <laughs> matalewul waaye ndimbalu sëñ Tuubaa lañ koy lañ koy sëñ bee ngi fi ne rek léeg di ñu jàppale ñi xaw a nab nabeeg yooyu. Mhm. waaye da ngay da ngay xool Cheikh Mouhamadou Mountakha mhm. nga xam ne. man dama koy xoolee bayit bi sëñ Tuubaa wax ni mhm. sabata annal muntaxaa xat mhm. faaxa man mada mhm. wa man yati wa man fii za zaman nga xam ne wér na ni eh, kii di muntaxaa xëy na nag moom sëñ bi xëy na moom am muntaxaam la ko firee muy yonente bi waaye ñun dañ koy firee jàppee sunu muntaxaa ñun muy wér na ni muntaxaa raw na ñu jiitu woon ñi fi ne ak ñooy ñëw nga xam ne loolu boo ko xoolee da koy gis ci moom ndax ku xool ci moom rek soxna Jamilatu eh, loo amoon ci sëñ Tuubaa ak taalibi bi la koy gënal ndax sëñ Tuubaa nag la wax ci alxuraan inna allaha ashtara alal muminina anfusahum bi anna lahumul janna yàlla dafa jaay jullit ñi dañoo jaay seen bakkan yàlla ngir mhm. jëndee ko àjjana mhm. ñun dañoo war a jaay suñ bakkan sëñ Tuubaa gis nga sëñ Fallu lam defoon mhm. yàlla na yàlla yokk ay ay leeram te saaf ñu ci barkeem jaay ak njureelam jëndee ko ak taalibe ñun loolu foofu a ne ko raw ndax ku toll ni leeru Cheikhul Xadim nga jël la nga am ci cër ci ak mbokk ak ni mu foore ak ni mu neexee nga jël ko jaay ko jëndee ko ak taalibe ngir sëriñ bi kon ku ne xam na ne sëñ Tuubaa ak taalibe doo nga moo jariñee nit boo xoolee Cheikh Muntaxa mi yi ak ak ni mu àndee ak ak ak sëñ Amza ñu koy ñaanal moom it mu yàgg fi te ànd ak wér sëñ Bas euh, Cheikh Mouhamadul Bachir mhm. moom itam ak ak sëñ Abdou Samad ñoom ñëpp nga mhm. gis leen mhm. buñ gisee sëñ Muntaxa daal dañuy ñoom ñëpp dañuy rëppeelu fukk ci suuf nga xam ne sëñ Tuubaa dara du fa jariñi ci moom lu dul ak taalibe ndax fonkaat ko tegaat ko fi ñu ko war a teg te bàyyi itam comme soxna Aram li mu wax bu bu buñ nee sëñ Tuubaa rek nga mel na la neex ba pare di ko mbubboo loolu nag xëy mënuñu ci dara ndax sëñ bi daa ëpp ba rogalaat ba ba waaw ba muy dugg <laughs> moom sëñ bi daal daa daa barkeel fu ne lay walwalee fu ne lay <laughs> waaye nag lu mat a moytu la lu mat a moytu la ndax koo xam ne damay wax ni <laughs> bu ne yàlla defal mu def bu nee bàyyil mu bàyyi da nga koy moytu nag ndax ñun dañ koy xool ci ñun nit simple nii rek man su ma leeree ni soxna jamelatu mi daa xaritoog soxna aram lu lu ko soxna aram wax loolu lay def damay fexe nag di neexal soxna aram moom uh-huh. ki nga xam ne nag lu lu mu wax yàlla loolu la yàlla di def lu mu wax mm, defal mu def bu nee ko bàyyil mu bàyyi danga ngaa fexe nag war a war a ne ca la ko neex muy sëñ Tuubaa da ngay xool léeg-léeg ci xasidaam yi eh, ni muy bindee ijal ak wàccal nga xam yooyu ay fi'l amr lay doon maanaam defal ak bul def xam nga loolu moom boo ko liiree boo xamee tuuti ci naxu xam tuuti ci arab di nga xam ne lii moom day mel ni kuy wax ak maanaam di exiger wala boog pas exiger maanaam di wax nit ki defal ak bàyyil loolu ba ci suñ borom nga xam ne noonu la Serigne Touba di waxee moom mhm. defal bul def te nag dafa am lu am solo lu Serigne Touba wax kafaaniyal baaxil mamaata sarmada wa bi baqaa ee yasuru ahmada loolu lu mat a bàyyi xel la mhm. Serigne Touba mi ngi fi de dugul fenn mi ngi fi duñu xool bépp murit bu def ci sa xel ne nag sëriñ mm-hmm. bi foo ne ma nga fa ak yow mm-hmm. lépp looy def di nga ci bàyyi xel bu baax ndax moo wax ne mm-hmm. yàlla fegal na ma faatu te des gi may des ci àdduna di dund ci la yonent bi di bégee sallallahu alayhi wa sallam xam nga kon kooku sëñ Tuubaa mi ngi fi loolu lu mot bàyyi xel loo xam ne dañ ci war di dañ ci war di def taxaw seetlu te joxaat cër bi sëriñ bi cër bi ko yàlla jox ñu jox ko ko delloo ko ko te bàyyi nax suñu bopp gi ndax soxna am wax na ko am si ñoo xam ne sëñ Tuubaa nee na dinaa leen sëlbu am ñoo xam danaa leen yëlbu ndax nag am na ci ñoo xam ne moom faaw yàlla photocopier leen moom <laughs> loolu moom yàlla ñu ci yàlla musal waaye am na ci ñoo xam ne xam naa sëñ bi dana xàmmee photocopier original waaye rus gi muy rus yàlla sax dana tax bu ko ko yàlla joxee day noppi rek nañ moytu nag bokk ci ñooñu mhm. ndax bu boo waree dugg dugg àjjana man damay wax saa su nekk ni eh, ñun murid yi surtout ñun jeunes yi mhm. dañoo war a dépasser statut maanaam daal sëñ bi daal mbaax na su ma faatoo sëñ baax na fa ay ñu daal di jël kenn ci ligne bi soxna may suñu dellu see ñu daal waaleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. wax nañu sell ñu leen ziare bu baax a baax a baax. tur wi naka la ak fooy woote. Magu Ndiaye Touba Magu. Magu Ndiaye Touba ñu ngi baax sëñ Magu. bu baax di ziare yéen soxna yu baax yooyu di leen ñaanal bu wér. di ko ñaanal suñu soppe boobu soxna May. Mhm. ak yow moom mu toog ak ki ñu ngi leen di baaxee bu baax. ah jigéeni lislaam dana ñeen dong la ñu mel de. Mhm. ñu ngi leen di bëgg lool di leen di leen di leen ñaanal nu fan ko gën a gudd rek barke Seydina Mohamed. amiin amiin ñu bokk ko. barke Tuubaa ba nga xam-xam ay ndaw ngeen li ngeen mhm. defit ngeen ko ci rafet. Mhm, ah, teg ko ci xam-xam ak wax dëgg yàlla ak di ja. ndeysaan ndeysaan xam naa dafa daal di dog incha allah bu dellu siwaatee rek ñu jël ko ci vingt 88 628 08 18 incha allah soxna May yaa ngi tolloon ci fu am solo. dama doon wax soxna Jamilatu ni mhm. euh, nit ñi nañu waat xel bu baax. ci ci ci wormaal sëriñ bi waaye itam jox ko cër xam nga mag ñi fi nekkoon. ñoom ñoo gënoon ëppoon danger mhm. maa ngi tuub ci kàddu gi ndax xam nga nit ki boo sëñ Tuubaa boo ko jegee li ñuy wax loo jegee da nga koy da nga koy da nga koy miin mhm. ñun gis na gisuñu sëñ bi war ma yooyu xëy na mhm. mën na alkande googu mën nañ cee bañ a fekk waaye nag nañ jàpp ni sëñ bi ba tey mi ngi fi ñooñu dañoo amoon jegeeg za jegeeg zahir ñun ñu am jegeeg baatin ñun nag suñu digganteeg sëñ bi daa prématuré ñun jeunes yi ndax da nga ciy gis sama classe bi ñu jël ko salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi na nga def salaamaaleykum dafa mel ni ki daa dem ñu daal di koy euh, incha allah xaaral rek euh, ñu bàyyi la. waaw da nga gis sama classe gi dañuy xëy mën a ijji jàng benn xasida ñu ko nag ndax sëñ Tuubaa benn benn araf bu mbind rek fay na àdduna ak la ca biir waaye nga jàng benn bayit mokkal ko sama classe gi commencé di muuru yaa ngay aj sa bopp koo xam ne eggoo fa jàpp maanaam maanaam ñun daal dañoo jàpp ne bala ñu ndax sëñ bi balaa ngay jëri ci moom xaqiqiyan da ngay jëriñu ci moom chariyan ba pare da jaar ci chariyan ba pare door a xam lan mooy xaqiqiyan ñun nag dañuy xëccoo ay baati nag salaamaaleykum jël ko waaleykum ñu lay ziar bu baax noo tudd ak fooy woote. delloo ziar bu baax ak waa kër gi. ñu sant bu baax. na ngeen def ak coono. ñu sant bu baax noo tudd ak fooy woote. ñu eh, kii de tur bi da koy leb xanaa ngeen ngeen ngeen jégal ko ko rek. waaw ñu la koy jégal bu baax. ah dañ doon yoo tey ziar tey sant bu baax. ah jërëjëf. di rafetlu waxtaan wi di am mbégte lool. alhamdulilah. di ziar mboolem ku nekk ci télé bi rawatina yéen ñooñu toog soxna May soxna Aram soxna Jamilatu. alhamdulilah. di santaat yàlla bu baax di wax ni waa télé bi lu mel nii lañ soxla. waaw télé islam télé diine télé sëñ Tuubaa. ay jigéen yu yiiw yu sell yu jaamu yàlla lañ soxla. te waxtaan bi tege na ci xam-xam. alhamdulilah tege na ci sell. am nañ ci mbégte lool di ñaan yàlla yàlla guddal seen fan te wéral ko. amiin yaa rabbal alamin. waaw ñu ngi am mbégte bu baax macha allah. di wax ne rek sëñ Tuubaa moom dafa dafa daj kenn lépp. wax ji mu wax ne naajeytuhoo bi yaa nasiru bi yaa wali dafaytani iblisa inda jeewali mhm. loolu war naa doy ñu xam ne sëñ tubaa ak seytaane jotewuñ dara wallaahi kon ku am dara seytaane xamal ni sëñ tubaa sori na la dëgg la te ko jéem a jege sëñ tubaa nag seytaane du mën ci dara mhm. danaa faral di wax ne bu suñ borom ne inna ibaadi laka alayhim sultaan mhm. tey ji sëñ tubaa ko dese képp ko bëgg mucc ci seytaane rek bee boo jege ji sëñ tubaa ku dut moom rek seytaane ndërmeel na la mbaa mu daan la mbaa bis mu def loola loo xam ne boo jàkkaarloo sa borom rus. ndeysaan. kon nag. Mm-hmm. mucc ak tawféex ñi ngi ci jege sëñ Tuubaa. Mm-hmm. koy mbubboo nag ak ñi ne fi moom dañoo ñuroo. Mm-hmm. bokkuñu. waaye ki koy mbubboo ba tey moo gën mbubbu keneen ku moom. kon nag nañ góorgóorlu ci topp santaane sëriñ bi. te tegu ci tànk bi mu sant. te xam ne bu ñu ko defee danañ mucc àddina danañ mucc àllaaxira ndax li ñu dégg wax ko ci digganteem ak boroomam ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci digganteem ak seytaane mhm. guñ ko wax ci kaw suuf dëgg la kon nag nañ góorlu te fexe ba màggal gii ñu jëm. incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ñu fekke ko te taal ko. incha allah te am yu yaatu yu ñu ko defee. amiin yaa rabbal ñu góorgóorlu bañ caa xajal seytaane bunt. amiin amiin nga sëñ Tuubaa am dara am taxut ak seytaane. Mm-hmm, kon nag yal na yàlla defal leen jàmm. amiin amiin yal yàlla sàmm leen. amiin te sàmm la bi daal maa ngi wax sëñ Mbàkke Fay ne ko daal na fexe ba daal yéen ñi daal. na leen fi saxal te tey leen fi. wala mu seet ñu mel ni yéen ñu sax fi te toog fi incha allah ndax lu mel ni moom bëgg nañ ci loolu jërë ngeen jëf jërëjëf yal na bu baax a baax jërëjëf sëriñ bi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal ñu bàyyi soxna may rek mu daal di xam naa fi may daaneele ndax waxtu wi mi ngi mi ngi ah. a jate ñu ah. bàyyiwaat xel rek comme li soxna aram wax sànq mhm, mhm. léeg-léeg dañuy dañuy am maanaam dañuy jaxase ah. li ci bokk ak li ci bokk mhm. li sëñ bi wax sànq nag lu am solo la kuñ mbubboo sëñ Tuubaa yaa gën keneen daa wóorul ndax koo xam ne fa mu nekkoon. Mhm. lam fa nekkee woon mooy jaamu yàlla subhaana taala da ngay fexe. Mhm. maanaam na ca lam nekkoon sax ca ndax mooy tax. Mhm. am na ñoo xam ne tey jii bu sëñ Tuubaa dellusiwaatoon duñ defaraat seen toogaay benn yoon. bu di woon tëll duñ changé seen seen seen dama koy misaal rek. benn bis daa am benn a dem. am benn sëriñ bu fa war a ñëw ma gis soxna yi ñi di dugg ci table yeeg yooyu. ma ne yéen de ab ab ab kilifa mooy ñëw ab sëtu sëñ Tuubaa ngeen di dugg ci table yéen bu sëñ Tuubaa doon ñëw kon nu ngeen di def kon da ngeen di far xaru <laughs> donc ñu bàyyi xel ci demee noonu soxna waaw jërëjëf jërëjëf soxna May xam naa sëriñ mun Mountakha moom ak euh, ñeneen mbokki taaliba yi bu sëriñ bi doon ñëw duñ defaraat seen toogaay macha allah boo gisee jëmmum bi rek doon alxuraan kese euh, soxna Ara. ñu daal lay bàyyi rek daal kii su ko defee ñu daal di dellu cees mm-hmm. jëlee ñoom tamit premier safar euh, daa mel ni am na ko ci ligne bi salaamaaleykum ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax ci xaar bi. waaw soxna Jamila la mhm. sëñ taxaar day jëmm joo xam ne soo ko nee jàkk rek dalay soññu mhm. ndax sëñ Muntaxa mhm. ndeysaan man daf maa yéem laata muy nekk xalifa wallaay képp ku mës a toog ci jal bi ni la sëñ Muntaxa di di di di jàppee keroog ba ñuy ziyaar ndeysaan maa ngi ziyaar waa daayira Hizbut Tarqiyyah euh, ndeysaan keroog sëñ Muntaxa jiitu ca jotaay ba toog keroog góoróom moo wadd ci saako bi ci àddiyee ji ñu doon jox sëñ bi mu ne nañ ko ci delloo ndax day manqué maanaam bu ñuy xool ak taalibe bëgg sëñ bi bëgg arxuraan bëgg xasida yi sëñ bi dafa ñëw gën a xamal nit ñi kan mooy sëñ Touba. Mm-hmm. ba ci ay waxam sax danaan ci xasida yi rek lañ mën a xame sëñ bi mm-hmm. Mm-hmm. te it euh, discours bi mu def nekk lu am solo murid yëpp war ko teewlu bàyyi ci xel ay ca ñu jël ko ci ligne bi jël ko soxna arab asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam wa sëñ bi ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi la koy delloo mbaa ñu ngi si jàmm bu baax. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. waaw ñu ngeen di ziar bu wér di leen ñaanal jàmm. amiin amiin. ñu dugg ci weeru safar gi génn ko jàmm te màggal si jàmm ñëw ci jàmm. yaa rabbi amiin. ñaanal suñu Muntaxa mu yàgg ci yoon. amiin amiin amiin. yàlla di bu baax bu tax am na solo dañuy jàppale di seetaan rek xol yàlla suñu xol see dañu ne xaar ñu jéem a xool am na nan la fi comme nga yee daal di Artinya nah, jamu ingin bagian ya lah spiritual di bagian Amin. Amin ya pak Ah, wow kan bikin yang mau amal sama bahasan gua mereka karena belum dua kali cuma pilih konten. Ya karena mau paling gimana? Eh, itu dia gauge lah. wow gimana? nanti ini nyala dal nyala. Ini mentah ya kita ya tapi mau najion dia lo kayak lo spiritual yang bagus. Amin sih, amin sih. Amin di kira nyep. Amin, amin, amin. Wow, kerjaan itu dulu. waaw sëñ moom am ñu fay moom ndax moom yàlla moom bu doon hmm. keneen moom du nii. wallaahi yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawati eh, xante mi wax la war a yaamati yoon loolu moom. Hmm. borom bu hmm. baax la koy wax. kon wax dëgg yàlla war na noo am jom. moom yëpp nag dañuy dañ li gone nag wax dëgg yàlla moo tax mënuñoo wax ji waaye ñu ngi leen di ziar di leen ñaan jàmm. jërëjëf jërëjëf. waa kay sëñ bi jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la di la jaajëfal mhm. wax nga dëgg ki naan irham jamial wara na nga yërëm mboolem mbindeef mhm. ndeysaan loolu ku ko bàyyi xel rek tey jullit mhm. war ngaa bëgg sëñ Tuubaa defe naa sëñ Tuubaa bañ ko defe naa amul ñàkk koo xam la waaye sëñ bi kenn mënu koo bañ sëñ taxaa dafa wax lu am solo ndax def ne nañ doon ay murit saadix murit saadix li mu wax sànq dafa jafe il faut nga matale ñett yi mooy nekk ab jullit piir sëñ bi wax na ko nañ nekk ay jullit piir jullit piir nag mooy ki gëm yàlla gëm yonent yi gëm téeréem yi gëm malaaka yi waaye gëm lépp loo xam ne dogal na ko gëm tamit awliya yi nga xam ne wàcc na ko dëgg la ñu mel ni sëñ bi nga xam ne mu jat ñu daal di jël bi salaamaaleykum bi ñu ngi lay ziar noo tudd ak fooy woote bu baax a baax yàlla alhamdulilah ñu ngi leen di gërëm di leen ziara. Mm-hmm. ah di ñaan yàlla sunu borom yàlla na suñu borom defal leen tawféex. amiin ñu bokk ko. ah defal ko mbooleem koo xamante ni ki nekk na ci télé bi. amiin ah ñu jiital si ki nga xam ne moom la yàlla def mu nekk seen kanam muy sëñ bàkk yu fay. amiin. yàlla na ko sunu borom yàggal sunu kanam. amiin yaa rabbal alamin. ah ba liggéey bi xamante ni bi moom la ko Cheikh Mouhamed Mourtala dénk. Mm-hmm. yàlla na ko yeggaleeg jàmm. incha allah amiin. ba liggéey bii mu naal moom Mm-hmm. ah nu gan daje ca ngërëmal sëriñ Tuubaa bu ànd koog moom ba mu naalaat yeneen. amiin ah ku jàkkaarloog yéen seen xolam dina set. Mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa amaat ndam rek. Mm-hmm. ndax bu jëkkoon dañ naan xool ni. murid yi amuñu xam-xam. ndax li leen ko mooy mooy ki nga xam ne mooy sëñ Tuubaa tey. bi mu fi nekk ki waajuram ki magam. nekkoon na joxloon na boppam def ko taal bi boo xamante ne bii. Mhm. tey la ñuy door xam kan mooy Serigne Touba ndax sëñ Mountakha. tey. kon bu ngeen ñëwee jàkkaarloog télé bi mhm. doon ay soxna di waxtaan ci Serigne Touba. Mhm. mbirum Serigne Touba ay commencé. wër àdduna yëpp. kon thème bii ngeen di joxe. murid war na noo xam suñu bopp xam ñooy kan xam li ñu am lu mu doon. xam ca Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fan la ko suñu borom teg ñun ñu door a jël loola teg ko fa. Mhm. ndax ñun Sénégal li nu tardeel mhm. mooy ñàkk xam Sëñ Tuubaa mooy kan. waaye man de gëm naa ni ren laa demoon si raw du yonent bi. muy màgg sallallahu alayhi wa sallam. yàlla suñu borom nangul la sa aj bu ma ba ma tegee suma tànk ci raw du yonent bi. Mhm, sallallahu alayhi wa sallam keroog laa gën a wóolu Sëriñ Tuubaa keroog laa gën a gëm Sëñ Tuubaa. ndax àq gi Serigne Touba jox yonent bi gisuma ko foofu foo ko ko jox. Mhm. kon war na noo gën a góorgóorlu. Mhm. war na noo gën a xam li nu am. war a sens suñu comportement. Mhm. war a xam ko am lu kenn amul. dangaa war a mel lu kenn mel. wallaahi. kon nun murit. yàlla dimbali nañu. ba bu sëñ bi wootee. xoolatuñu dara lu dul jëfe kon suñu comportement. ak suñu doxalin. sax war na noo am naneen noo xamante ne nii war na noo war a gën jox sëriñ Touba ba àdduna yëpp xam ne lu nu am kenn amu ko. waaye nag la si ñëpp laxa doon wax mu ngi ñëw. Hmm. ndax bu nu demee ba ñuy woote màggalu Serigne Touba. Hmm. ñu am ñaari tele yoo xam ne bu dégg ba ci suba ngoon. ci yàlla la ñuy wax yonente ndax Serigne Touba moom léppam yàlla la. Hmm. ndax daram génnewul yàlla. waxam yëpp yàlla la. alxuraan rek lay wax. ndax xasida gu mu bind si alxuraan la ko jëlee. arab la ko jëlee. kon Serigne Touba génnewul yàlla. Mm-hmm. kon bu ñu demee ba njabootam ay sët sëtaatam toog ci télé bii doon ay soxna. Mm-hmm. muuru mel na soxna war a mel. Mm-hmm. di yëkkati di wax la Serigne Touba def kon Serigne Touba génn am na ndam. kon nu ngi leen di sant. di leen gërëm. di leen ñaanal yàlla. yàlla na sunu borom jàppale leen. amiin na ko sunu borom def ba ñuy xëccoo naan ñoo jiitu ci télé yi. amiin ngir foofu la la neen télé. fekk euh, Serigne Touba laa koy dox. amiin amiin yaa rabbal aalamiin nekk ñuy liggéey si yéen ñu ma xam. dama leen wax ni leen yoru leen télé daara ngeen yor. Mhm, mhm. ndax bari na ñoo xam ne xam ñu seen diine fi mu toll wala ñu xam Serigne Touba. wallaay mel ni sëñ Am Diop lañ koy jële dëgg la wala Maam Mor Mbaye. Mhm, borom kii bi lañ koy jële kon Serigne Touba. am na loo xamante li keneen duutu ko am. dëgg la ñun nag dañu ñu ko roy si ñun ndax kuy def lu baax ñu roy la. Mhm. fi mu toll ñëpp ngi leen di roy fi mu toll. ndeysaan wallaay. bu gàmmu jotee ñëpp koy def. Mhm. bu màggal jotee ñëpp a ngi koy def mais loola nag liggéey Sëriñ Tuubaa la bu yàlla di feeñal ba ñëpp dinañu ut lu baax comme moom. Mhm. kon ñu ngi leen di siyaare bu baax. Mhm. ah di leen ñaanal yàlla yàlla na suñu borom dimbali. amiin Fall ba nu bokk ci Serigne Touba di liggéeyloo bañ a bokk ci ñu bëgg a liggéeyal Serigne Touba. amiin Serigne Touba ku jox la loo ko liggéey. Mhm, mhm. kon yàlla na Serigne Touba bu ñu def ci safar bii nga xamante ne ak. weeram wi nga xamante ne bii. amuñu leneen lu dul. yàlla na suñu borom taxawulee. amiin amiin ñu te xam ne daal sama xol sedd na bi danoo mënu laa. jërëjëf Fall jërëjëf waaye daal sama xol na. jërëjëf Fall jërëjëf <laughs> jërëjëf ñu ngi koy dolli ziar bu baax a baax eh, ak mboole mbokk yi nga xam ne tey ñu ngi ci ligne bi wala ñu bëgg a woote wala sax ñi nga xam ne dañoo toog bañ dara raw leen ci ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Eh, daa mel ni am na ku nekkaat ci liñ bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi sant yàlla baax noo tudd ak woote. man la Massar Diagne Tivaouane Fall. ah. Massar Diagne Tivaouane Fall Massar. Massaane

ndax daal ñu baax ngeen di. jërëjëf. yéen ay royukaay ngeen ay royukaay. waaw ñoo bëgg yéen lool. jërëjëf. na amin amin ñu bokk ko amin. bak bakk sëñ amin amin waay. bak amin. baax ngeen wax de yàlla. waaw jërëjëf. li ngeen bëgg amin amin amin amin. jërëjëf yàlla na yàgg rek ba kii jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ Massaer. jërëjëf sëñ ok jërëjëf sëñ Massaer Touba alxuraan ñu koy ziyaara bu baax a baax waaye tudd na tey Baabul Muridiin yaakaar naa ne jotaayu sëñ Touba kenn du fa toog ba jógee te tudduñu ko muy maam Cheikh Ibrahima Fall yal nañu ko yàlla fayal xam naa nag dañuy daal di njëkkante ak waxtu bi soxna arab ndax comme dem nañ Touba faaw ñu dem Thiès ndax ñoom it mbokki taaliba yi fa nekk wane nañ seen mbégte euh, ci li nga xam ne moom moo di benn fanu safar kon nañ daal di jëlaat ki ci ligne bi doog a dem salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. Euh, soxna Aram. man la soxna maam Fatim Mbacke Mourtada. soxna maam Fatim Mbacke Mourtada mu sëriñ Mourtada. waaw waaw Mbacke Balla ñu ngi lay ziar bu baax. waaw yàlla suñu borom fay yàlla ziar. bi. Mhm. di waxtaan wi. jërëjëf Mbacke Balla. di leen ñaan suñu borom dëgëral seen taxawaay. amiin. ñu ngi nuyu soxna mhm, mhm. jërëjëf. jërëjëf Mbacke Balla <laughs> jërëjëf. jërëjëf soxna maam Faty Mbacke mu sëriñ Murtada. mu nga ca Touba ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax soxna Aram yaakaar naa ne sa soppe la. waaw <laughs> moom sama yaay la sama séddoo la la wu ci dara. dëgg la maam kooku moom sama lépp la. bëgg bëgg alxuraan ku baax nit ku baax. <laughs> nit ku bëgg diine. <laughs> soo ko xoolee rek sa xel dem ci waajuram bu sedd wax. mu Cheikh Mouhamadou Mourtada lislaam rek a ko ñor. xam naa moo tax tey mu woote. am nañ mbégte lool ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak waa Kër Sëñ Mourtada yëpp. ok jërëjëf bég nañ lool. jërëjëf Mbacke Balla léegi nag dañuy daal dem dem Thiès incha allah ñoom it xool yi naka la ñu dundalee benn fanu safar incha allah daal dellu si waat ma jóg man te fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuuba ku xam yàlla gëm yoonen liggéeyal Serigne Touba mbokk jullit yi seetaan lépp loo xam ne rek am ngeen ci mbégte ak yaakaar ci télévision Touba TV kon sëñ Ousmane ñu daal di ànd rek ba tey daal di la dox bu am solo bi nga xam ne mbokki taalibe ñu ngi koy bégee ci weer bi nga xam ne moom moo di weeru safar. Bamba jërëjëf Bamba jërëjëf

gis ngeen ko noonu mbooloo maa ngi noonu di wane seen mbégte ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mi nga xam ne moo def li yéem ñëpp kenn xamul lu mu doon Serigne Touba ngi noonu liggéeyam bu màgg bi liggéeyam bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko liggéeyal ko umma islam bi yëpp gis ngeen waa Thiès ñëpp génn nañ kenn desul ñii ñu ngi daanu ay leer ñii ñu ngi kontaan ci Serigne Touba waaye ñii ñu ngi wane seen mbégte ndax lan dugg nañ ci weer wi nga xam ne moom moo di weeru safar wi nga xam ne Sering bi dafa waxoon sa yu wer wi ñëwee rek na ngeen ma santale sëriñ Touba Cheikh euh, na ngeen ma santale borom bi tabaraka wa taala moo tax euh, murid yep daal di génn waxuma la murid sa sax yu jullit nyep jullit nyep a gin rek wane sen bek ci weer wi nga xam ne moom moo di weeru safar ni nak lañ ko fasiyene tambalé euh, bes bu jot rek ngeen gis ne sha allah nit ñi dañuy yàkkamti sax fukki fan ak juroom ñetti dal di yegg waaye tàmbali wuñ ko ci fukki fan yeeg juróom-ñett waaye ci benn fanu safar bi rek dañuy tàmbali wane seen mbégte nii mu amee ci Thiès noonu la amee fële nga xam ne itam moom moo di njaareem boo fa demee mbokk jullit yi mbokk taalibe yëpp a génn wane seen mbégte si Serigne Touba gis ngeen ko noonu ñii ngi yore photo Serigne Touba ma Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye kenn du jàmbaar ji nga xam ne moo nekk ci ginnaaw mi ngi noonu di photo maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina xam ngeen ne mooy buntu euh, buntu murid moo wane Serigne Touba moo wane tolluwaay Serigne Touba waaye moo wane itam jàmbaar ji nga xam ne moom la jàmba Serigne Touba jàmbaar ak may gi nga xam ne moom la ko suñu borom may maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko njëkk a nangu wane buntu bi nga xam ne moom moo di buntu murid yi kon mbokk yi sant nañ leen bu baax a baax jaajëfal leen ci li nga xam ne moom moo di weer bi nga xam ne moom moo di weeru safar ngeen ànd seeg ñun kon képp koo xam ne am nga ci xew-xew ci weeru safar wi. na nga woo Touba TV ñu ngi lay xaar incha allahu rabbi su ko defee ñu daal di lay jëlal nga wane sa mbégte wane sant gi nga xam ne moom ngay sant Serigne Touba ñu ngi sant yàlla waaye ñu ngi sant Serigne Touba ndax lii moom rek ko mën dégg ngeen ko. jërë ngeen jëf mbokk yi lépp rek ci seen émission mbégum safar incha allahu rabbi képp koo xam ne rek yaa ngi waajal. ngir def sa safar na nga woote fii ci Touba TV su ko defee ñu daal di koy jël ah, daal di la koy mën a tegal incha allahu rabbi ah, soxna may gis nga ko noonu mbokki taalibe yi nekk Thiès ñëpp daal di génn wane seen mbégte ndax lan weer wi nga xam ne lañ war a santale suñu borom subhaanahu wa taala ki nga xam ne moom moo di sëriñ bi ah, daal dinay tàmbali moo tax ñëpp rek daal di génn keroog yaakaar naa ne ñu ko organiser mënatuñ sox ko mënu ko mënatuñ koo téye ndax ëpp na leen doole yaakaar naa ne man damaa wax ne la nekk Thiès yëpp génn ñooñu nekkuwuñ ñoo xam dañoo tënku rek ci murid yi jullit ñëpp a génn ñëpp a génn ndax mën naa wax na Thiès kenn def desu fa woon ndax mbooloo ma na mu tolloon yéeme na te itam noonu la mel ci Jurbel incha allah buñ ci noppee léegi danañ dem Jurbel danañ dem fële nga xam ne itam moom moo di Barcelone ndax ñoom it amal nañ fa euh, bésu safar bu am solo ci benn fan safar bi incha allah ñu bàyyi la nga jàngat ci mbooloo mi ah, jërëjëf soxna Jamilatu mm-hmm. macha allah boo xoolee image yi sa yaram sax day daw ndeysaan xam ne liggéeyal yàlla rek mhm. moo am solo ndax yàlla ku ko fay ku ko liggéeyal mu fay la mhm. te sëriñ bi dafa liggéeyal yàlla euh, ba tax na ñun li ñu lu ñu mën a jariñoo rek moom mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa mhm. ndax ku nekk xam na ni li mu waxoon rek ni soxna jaara yàlla da koo fay ndax damaa liggéeyal ndax man ku ma liggéeyal la te loolu itam comme way juróom moom lay wax ni moom moo ko liggéeyal nga xam ne boo xoolee sëriñ Tuubaa ñu bokkal way jur bu góor ak bu jigéen yépp dañoo ëlbatiku jébbal ko seen bopp te loolu du du du ay caaxaan du ay neen itam euh, nga tudd sànq euh, Bar Barcelone xam nga mm. soxnaam juñu la ko sànq boo demee bitim réew ci ngay xam dëgg-dëgg kan mooy sëriñ bi mm-hmm. ndax li mu wax inni uxaatibu nasara tura fi ardihim li maaliki mu tara mm-hmm. ñoom sëñ bi daa dugg ci tubaab yi maanaam li ñuy wax imposé mm-hmm. moom moom ñu bëgg ak ñu bañ ñu ci bari moom ñu bëgg ak mu bañ moom da ngay gis sax ñu ci bari bu ñu gisee photo sëñ Tuubaa dañuy laajte kii kum doon tellement que da leen di impressionné ndax nit ñi ñëpp daanaka boo duggee mm. ci réseaux sociaux yi da gis ne mm-hmm. fi mu toll nii jeunes yi ñëpp safar la ñuy wax loolu nag li ko waral moom mooy li mu wax rek mm-hmm. sababu xaybati an allaaha araada an bi minhu jaaha mm-hmm. waan akuna shaafian li xaw mi waan akuna xaadiman fi daw mi nga xam ne loolu boo ko tënkee rek moom mooy tukki bi moom li ko waraloon lépp moom mooy suñu njariñ ñun te mënta ñàkk nag ndax uh, ki ki nga xam ne yàlla da koo def muy za nafin bila dararin di borom njariñ lu àndut ak lor ni mu ko waxee amarani wa mafza wa man araadal xayra fi kiltay daare ni fal yalus bi suñ borom moo ma digal man sëriñ bi ma fësal ni man maay delluwaay bi man da ngay jokk ci da ko koo defal ko ko ci baatin ndax sëñ bi foo làmb ci lu baax rek daj ko li li li ñu xewal léegi naan réew mi Bàmba moo ko moom àdduna bi ci boppam sëñ Tuubaa ko moom man la ka ni dunya wa uxra samadu ba bëy jeex nga xam lépp daal lu baax sëñ waa loxo yàlla jox loolu nag moom mooy wane ni fi mu ne ñëpp dañuy ree ndax ndax mbégteem safar bi ne ci ñun kon balaa may a ah, parole bi na mu lay bàyyi nga wallaay ndeysaan jërëjëf soxna may yàlla na suñu borom tabaraka wa taala fayal ñu la eh, yaakaar naa ne tey moom sunu maam eh, Serigne Issa Cheikh Issa kontaan na lool macha allah soxna Arame ñu bayila bala balaa ñoo dem jaaree. soxna Jamila ndeysaan li soxna may wax dama xol image bi rek sama yaram daw. daanaka xawna joy dafa daw yaram. manam dañoo wone li sëñ bi wax. sifatul murid saadix baxtisaar arbaa. loolu la waxoon. bi ci jitu may asidqu fi mahabbati cheikh. abad. maanaam dëggu ci bëgg sëñ bi te ñii ku leen gis ni ñu manifesté wa ak ni ñu koy doxee ndeysaan nga xam ne seen xol dafa fees dell ak sëñ bi lu jeex tàkk ci sëñ bi te looloo jafe te sëñ Tuubaa loolu suñu borom da koo defal ab taalibe bu ko gisee rek daanaka jaru sax muy wax yow mii moromu taalibe bi da nga xam ne kii ab taalibe murid la donte waxantewu leen sax. Mm-hmm. kon sëñ bi loolu suñu borom defal. Mm-hmm. kon bëgg giñ bëgg sëñ bi wane nañ ko ci manifestation boobu. Mm-hmm. muy lu am solo. yow it ñu lay jëfal euh, di sant suñu borom. mi la ci boole boole ñu suñu nit ndax jàmbaar amul kuñ dimbalee am. ndax ndimbal mooy tax nga bokk ci liggéey sëñ bi ndax du bëgg mhm. ndax sëñ bi mooy tànnal boppam mhm. Mhm. kon nañ dëgg gën a takkaat laxasaay gën a góor góorlu ci bëgg sëñ bi gën a góorgóorlu ndax duñ ko réccu mukk képp koo xam ne liggéeyal nga sëñ bi dina la ko fay ba nga gis ko fii lay tàmbalee ci àdduna waaye nee na bis bu ñu la yoree ci biir bàmmeel nga xam man maay kan sama taali bi bala maa xam dëgg ñu yor ko ci bàmmeel kon nañ góorgóorlu bu baax ci liggéey sëñ bi ak bëgg ko jërëjëf jërëjëf soxna Aram Mbengue Murtada jaajëfal nañ ko bu baax a baax xam naa dañuy ànd ak sëñ Mbacke Mbodj euh, daal di dem fële nga xam ne moom moo di njaareem ku ne sëriñ bi nag daal di tudd njaareem ci dëkkam bu mag sell boobu nga xam ne tey bari naa euh, yu bari yoo xam ne foofa la xewee ñu daal di dem xool ñoom tamit maanaam benn fanu safar naka lañ ko dindalee ca géej ga keroog ba mu lal ni seetaan fu ngeen mën ci réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di siar, sunu siar, ak sunu wàccuwaay ñu ciy jiital xalifatul am li tariqatil muridiya sëriñ Muntaqa Mbakke moom sëriñ Basiru di ñaan mu yàgg fi Mbakke tànd ak wér mbooloo mi mbokki taalibe yi noo ngi fii ci njaareem dëkkub Cheikhul Xaddiim tey jii nga xam ne mooy fan ci safar weer wi nga xam ne cheikhul xadim cheikhu naa cheikh mat bamba moo waxoon ne bu dikkatee nañu ko ci sant la yàlla ndax mbooleem lu mu musaana liggéeyal yàlla fay na ko ko ci weer wii xam ngeen ne saa yoo xamee ne weer wi teru na safinatul amaan gone njaarim daanu tak aw say ànd ak njaarim gépp wër njaareem dox sant cheikhul khadim ci gox yeb wër ko fi may waxee ak yéen ñi ngi tollu keur cheikh ibrahim fall lamp babil mouridin waye nak ma ngi taxalo ak monsieur le maire honorable député malik fall mi nga xamne moy maire djourbel monsieur le maire ñu gis la tay waye gis njabootuk cheikhul khadim gi ci sawet ñi ngi ni ah sëriñ abdoul ahad mbàkke ngi feggo ak yow waye nak nga feggo ak DG mustapha guèye directeur course bu cees yéen ñëpp ngi di ay doomi njaareem tey ngeen ànd ak mbooloo mi macha allahu di liggéey liggéey bu am solo tey monsieur le maire tey loo wax ci bis bi. waaw lu ñu Robert sant ñëpp sant euh, seen sang yu baax yi sant DG sant leen waa presse bi di nekk doon lu bari ñu ko a jàllale. jërë ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ne tey moom yaram daw na lool ñu ngi nuyu bu baax di ziar suñu naataango boobu mu di Serigne Mourtala moo yore noonu ndeysaan macha allah micro bi foofa ca njaareem di nuy bu baax a baax muy meeru njaareem bi mu di sëñ Malick Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziar sëñ leen ci jëm soxna Yacine ñu ngi leen di ziar bu baax a baax macha allah ñoom euh, def nañu maanaam dox bu am solo. wane seen mbégte ci li nga xam ne moom moo di benn fanu safar bi tàmbali waaye comme ni ñu ko waxee woon léegi rek kenn mënut a tudd bi te tudd maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina dégg ngeen ko noonu ñu ngi toll fële nga xam ne moom moo di kër Cheikh di kër Cheikh Ibra kon mu mel ni ki soxna may rek yaakaar naa defaat nga jàngat ndax fi mu nekk nii li mbooloo mi bari bari moom ci njaareem caméra yi jotewul jigéen ña ndax mbooloo ma bari na lool ba ba jotewuñ sax jigéen ña ngir mën leen a filmer ndax maanaam ni ni mbooloo mi toll te yaakaar naa ne itam lu lu lu daw yaram la loo xam ne luy wane ne lislaam rek moom mooy dëgg te wane na ne sëriñ bi l'islam rek rek moom moo ko ñoroon te itam moom la daan xeexal te xeexe bi mu xeex lépp du kenn ku dul mboolem jullit ñëpp ndax moom amutoon tànn xàjj ak seet waaye ñëpp la fi nekkaloon moom sëriñ bi xam nga day firnde rek sëriñ bi wax rek ci xasida googu di safar mhm. wa fi kulli shahrin zaydu ribhi wa fi mhm. safar mhm. nga xam ne weer bu nekk rek day sëriñ bi yàlla day dolli ay may waaye nag da koy da koy gën a yokk nag ci weer wi nga xam ne day law ba ca ñane àjjana sax nga xam ne bu safar ñëwee dañuy xam ne tey jii la bisu bisu màggal ndax euh, li mu wax rek ne xam nga li yëpp li ko ko may mooy muñ natt ak nangu ndogal loolu tam ak njàmbaar nag ñu war ko ci roy bu baax a baax ndax xam li mu wax li mu wax xusóori xalaat wal ahlu anni matxil lazi anhul ne tàggale nañ ko ay mbokkam màbb ay paleem lu ne def nañ ko ko mhm. tëj ko ci njaareem googu nga xam ne ñoo doon marché def ko fa résidence lu mat fukki at ak juróom sëñ Tuubaa nekk ko ci mhm. dëkk boobu mhm. euh, mënta dem njaareem nga xam ne wax nañ ne dafa bëggoon Tuubaa ba benn bis da doon dox ngir ngir ngir dem njaareem ndax wax nañ ne Tuubaa bi ngaabu lañ ko dabee delloo si ko ndax bëgg gi mu bëggoon dëkk bi mm-hmm. xëy na ñàkkul ni bala ñoo tëj danañ ci ñëw mm-hmm. nga xam dëkk boobu sëñ Tuubaa def na fukki at ak juróom ñoom ñu am lu rëy nag mm-hmm. man damay wax ni man mi nga xam damaa juddoo Njaareem sama carte d'identité ne à Diourbel la ci nekk moom naa sëñ Tuubaa man de fa laa jànge fa laa amee <laughs> shahadatul ibtidaaya ak ak i'daadiya waaw école sëñ Muntaxa <laughs> dañ koy sante sëriñ bu baax baax ndax ndax amaana loolu mën na nekk suñu carte suñu suñu suñu identité moom nga xam ne dëkk la boo xam ne boo fa demee gis li wër jumaa ji ak ni fa sëriñ Tuubaa daan jaabante nga xam ne wax nañ ne wax na ne foo teg sa tànk rek jàppal ne sëñ bi mës na faa teg tànkam ndax jaabante gum daan jaabante mhm. diggante jumaa ji ak kër gu mag gi nga xam ne ñoom dañoo am lu mhm. mhm. it li ñuy wax rek moom it li ko li ko sëñ Tuubaa fayee fa mu tegoon sëñ Tuubaa rek la ko yàlla delloo moom it nga xam ne doo tudd yoonu murid mu ko sa tuddoo ko bu waxee turam sax daal ci teg baabul muridin nga xam ne itam euh, daal day wane jëriñ daal sëñ Tuubaa mhm. liy jëriñe ci moom mhm. mooy doonu bi waaye itam teg ko fa ko yàlla teg mhm. boo ko tegee fa ko yàlla teg rek mu mu daal di la koy delloo ndax ku ne xam na ni wax nañ sëñ Tuubaa wax na boo xoolee ci irwaa nadim da ngay gis sëñ Tuubaa am na fu muy nettali ne euh, mas naa nekk ci tukki bi ci barab boo xam ne nattu ya dafa méttee métti ba mu mel ni kuy jàmbat ci saasi rek yàlla yónnee ko ay yamb mm-hmm. yamb yi yamb yi sam ko mu xam ne na xëy na mm-hmm. li mu xaw a jàmbat tuuti rek moo tax yàlla yónnee ko yamb yi mu mm-hmm. daal di jël jàmbat gi na def ko ak santam daal ni eh, ba may faatu lépp lu ma mësatee dal moo xam lu lu mu mën a doon rek damay wax alhamdulilah ala kulli xaal kon loolu itam ñu war ko cee mooy roy te mooy gëm yàlla gi eh, nangu ndogal gi dëggu gi loolu moom Sénégal bu ñu jëloon benn jikko ci sëñ Tuubaa rek ba tey avancé nañ nangu ndogal donc bu ñu ko jëloon ndax du xool lu soxna aram ma di ko ci ñee ba koy liggéey xool soxna Jami dootu am ma ko ci ñee bay def na ko su dul noonu sa digganteem ak keneen. Mm-hmm. donc yooyu buñ ko jàngatee ci sëriñ bi mën nañoo amal amal ay njariñ. dëgg la jërëjëf euh, soxna May ñu ngi koy jaajëfal euh, macha allah comme ni ko waxee rek njaareem day barab boo ne barab bu yéeme la. Euh, ci sëriñ bi ñu nuyu bu baax a baax soxna suñu bàjjan amiloo moo yore daara ji nga xam ne moo nekk ca Barsàq muy fi xam ne fa soxna yi nekkoon ñu ngi koy nuyu baax te ko ziyaara waaye am na ay mag yoo xam ne sëriñ bi daf leen a defaroon mm-hmm. foofu lañ nekkoon ku ci mel ni ki sëriñ moo dem kër sëñ Mor Dem kër sëñ Mor Mbay Siise waaw kay mu ngi noonu kër sëñ Bas Jeng macha allah eh, ñooñu ay jàmbaar lañ yoo xam ne eh, tey foo leen tudd rek sa xel day daal di dem ci alxuraan te ba tey nag daara yee ñu ngi fa sax te loolu lépp ci liggéeyab sëriñ bi la soxna Aram balaa ñuy dem Barcelone. ndeysaan jërëjëf soxna may dafa wax la njaareem mhm. maanaam njaareem booy dem Touba rek boo duggee njaareem. da ngay yëg ne daanaka egg nga Touba. Mhm. xaw ma lan la. waaw man boog damay am. yëg-yëg boo xam ne waaw daanaka fa la <laughs> tàmbalee nga yaakaar. ba ci booy dem màggali sax. per mhm. ndey fa lay tàmbalee. nga gis la fa sëñ ba dafa asaar ya fa am. nga xam ne sëñ bi am na fa fukki at ak juróom comme ni ko soxna may waxee lu baree bari fekk ko fa. tey mu ame fa lu bari ci njaareem googu mhm. muy baare ko gi nga xam ne moom lañ ko tuddee mhm. maa ngi leen di ziyaar yéen ñi fa dëkk ñenn ñi jànge fa <laughs> donte ñu romb lañ ci am waaye am nañ ci cofeel goo xam ne fu ñu rombee njaareem rek suñu mhm. xol day sedd euh, ndax sëñ bi moom wax dëgg yàlla fu ko tënk ci fi mu jaar rek danga naan fii rek la liggéey ndax la mu fa daj ak coono bu metti ba mu fa nekke woon li soxna may wax sànk rek nee na métti bi nga xamante ni moom la daan dund loolu defe naa ni képp kuy murit war na ci bàyyi xel maanaam euh, nangu ndogal bi soxna may wax. waaye am ngor. Mhm. sëñ bi dafa amoon ngor. am ngor lool ndax lu metti metti rek day mhm. dem. Mhm. ndax fa mu jëm da koo ñeme lu tax mu ñeme ko parce que suñ borom la fay fekk. kon murid yi war nañ koo roy loolu. ci loolu ci loolu. waaw day fekk nag ñu nekk ay murid saadix. teg suñu tànk fi ñu sëñ bi digal. ndax sëñ bi wàccoo na ak ñun. bind maa ngi fi. dafa naan buñ ci tënkoo xool mhm. njabootam gi rek dañuy daal di defaru dëgg la rawatina jaareem man moom jaareem damay defar soxna Jamila soxna soxna Aram waaw <laughs> Tuubaa dañoo wax ni dafa mhm. mas a toog ci mhm. buqaatul mubaaraka teg loxoom daan ni hazihi hiyal buqaatul mubaaraka kon baat boobu ñuy wooye mooy place bi ñu barkeel baat boobu ñuy wooye ñaaram kon Sëñ Tuubaa doon tombalee mag ñi fa doon tombalee mag ñi tudd na sànq mag ñi fa nekk ñëpp mu doon lu am solo dëgg la jërëjëf soxna May jërëjëf soxna Aram Mbeng di ñaanal bu baax a baax sunu waajur yi suñu borom jéggal leen seen i bàkkaar te xar leen ci àjjana kën ñu kawe ci njaareem la ñu tëdd ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax sunu ñaari waajur yi xam naa dañuy ànd ak Serigne Mbacke Mbodj rek ba tey daal di dem Barcelone moom it daal di xooli rek euh, la fa sëñ ba def moom it ku yéemu tey war ngaa yéemu Serigne Touba ku yéemu tey kuy am am tey ak yëg-yëg war ngaa am yëg-yëg ne Serigne Touba liggéeyal na yàlla waaye sunu borom fay na ko kon noo gisee tey liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii tey ci Espagne. xam nga moom diggoon na tubaab yi ne leen dana fi ñëwaat ci seen ruqi dëkk yëpp kataballahu tabaraka wa taala anna kaatiba fi hazihul urufi sa yuxaatibu nasara fi uqli daarihim man dig leen naa leen ne. yéen ñi may yóbbu ne da ngeen di arrêté sama liggéey man Cheikh Amadou bàmba dinaa del siwaat ci seen ruqi dëkk yi tey nag dafa ñëw ci pénc mi faf waaye dafa waxoon itam ne muluku zamaanu lii ullinu bila azan muluku zamaanu lii ullinu bila azan bi jaayu mat u sujaan xayiran lam yu nazihu dafa wax ne yàlla moo ma notal nguur yi ci darajay yonent ci yàlla Muhammad mi may liggéeyal sëriñ bi nag waxoon na lu leer naññ nee na leen woon fa laysa yujibu sawaadul jismi safaatul fata wa sual fahmi el color de la piel negra nunca jamás justifique estupidez et falta de consciência nee na woon ñu laayug darug yaram waroon lul def wala gàtt xam-xam wala néewug njàmbaar moom nag wane na ci njàmbaar loolu góor mësu koo wane wane na ci xam-xam loolu góor mësu koo wane

mu jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey rek ci seen mbégum émission mbégum safar di ziyaarewaat bu baax a baax mbokk yi ñu teewlu yépp ci Touba TV te moom yaakaar naa ne euh, lii war naa yéen ñëpp ndax lii ma nga xewee fële ca Barcelone ñoom it ñuy wane seen mbégte ci safar gi nga xam ne moom moo tàmbali te itam yaakaar naa ne façon yi ñu koy defee moo bokkul waaye noonu la amee ci mbooleem. dëkk yi noonu la amee ci mboolem itam yenn réew yi nga xam ne tey euh, Serigne Ba yegg na fa yaakaar naa ne tey réew moo dem rek am na kër Serigne Touba am na jumaa mbaam am jàkka yoo xam ne moom la ñuy màggale màndargale Serigne bi te itam bokk na ci li gën a yéemu mu di àdduna si fépp fu leetar mun a jugee ñu bind ci xaadim rasul incha allah dafay yegg si Touba loolu loo xam ne lii suñu borom moom moo ko fayee. sëriñ bi ci liggéeyam bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko digganteem ak boromam waaye liggéey liggéey di liggéey ko itam ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni ma bëggee yonent bi noonu la ma yonent bi bëggee moo tax lu ma bëgg loolu la yonent bi bëgg waaye lu ma bañ itam moom la yonent bi bañ kon xam naa ne soxna May lii moom yéeme na daw na yaram euh, ni nga xam ne itam noonu la dawee yaram bu Bàmba day yegg seeni gis nga itam marche bu am solo bi nga xam ne moom lañ fay def ci liggéey liggéeyam Serigne Mouhamadou Mourtada ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom fayal ñu ko te taas ñu ci barkeem di bu baax a baax Serigne Mamour Mbacke moom it ci liggéey bu am solo bi ñu bàyyi la rek nga wax sa yëg-yëg ci li nga xam ne ma nga xewee ca kër euh, nasaraar ya waaye terewul nasaraar yi itam gis nga leen ñu ngi yor seen i photo ak seen i ndax mbooloo mi jaaxal na leen dëgg la xam nga des na tuuti xaw ma xam nañ koom déet des na mm-hmm. tuuti rek tubaab bi ci boppam ñoo ñëw di marché fii ci Touba ragal naa ko nag euh, ndegam sëñ bi am sañ-sañu bind kataballaahu tabaaraka wa taala anna baytallaahi alxaram mhm. tarfaul malaaikatu ilaa tuuba nga loolu moom mhm. moom moom moom mi ko wax ay luñ ko de la te lu wér la nag ndax gis naa ci mbir boo xam ne moom <laughs> maanaam euh, buñ demee màkka dañ fay dem ngir ziyaar yonent bi waaye la ñuy def tuuba moom yéeme na donc loolu dafa doon loo xam ne luy ab mhm. jàngat la ndax wax naa ko sànq li mu wax ne inni uxaasibu nasara tura fi ardihim li maliki mutara xam nga li mu wax ci Cheikh Mouhamadou Moutada da koy firndeel euh, làkk mataabiya bi shukrin wa rida mhm. yaa waasian wasaatali bi murtada nga mhm. xam ne mhm. a doon ci ci bitim réew da ngay gis ne ay ay barab yu bari yu xaw a ruqe sëñ murtada yàlla na yàlla yokk ay leeram teg dafa tànkam te du doon mottali bayit boobu sëñ Tuubaa wax ne yow mii aji yaatal ji yaatal nga samay mbir ci ci tajaare ko ci ci murtada euh, loolu dafa firndeel lii rek nga xam ne boo xoolee tubaab bi gis nga leen ñu yor seeni seeni téléphone ak seeni caméra di filmer yu demee noonu euh, mooy li ma la wax rek des na tuuti ñun ñoo leen di teeru fii ñoom ñi ñëw di marché si fii nag. ci biir mhm. ci ci am na ñu ko tàmbali sax dañ leen a rek waaye <laughs> léeg-léeg nga dem ci jumaa ji taseeg ñoom yor say micro taseeg ñuy ñuy ñuy ñuy yëkkati baatu laa ilaha illallah Ara. waaw soxna Jamila li soxna may wax. Mhm. maanaam dañuy rek ci la sëñ ba ne woon. Mhm. tubaab bee ma gën a xam. ndax suñu xamoon ne ndam lii la sëñ bi di am. duñ ko yóbbu mukk. dëgg la. damay xool sax ma ne est-ce que ñun Europe ñi fa nekk gënuñ ñoo dund sëñ bi. ndax damay gis ñoom benn màggal du leen romb journée xasaay di ñuy taxawal kër sëñ Touba yi ñu fay taxawal comme ni ko soxna may waxe ndax sëñ bi suñu borom da ko dimbali yaatalal ko ci yoonu tukki. manam jaaral ko ci Cheikh mohammed Murtada sama soppe ya waasi an wasantali mur bi Murtada tay al mujahidul akbar wa kon defe na daf ko yaatal jaaral ko sëñ Murtada mu liggéey fa liggéey bu am solo kon sa ñu xolé Europe la fa sëñ ba liggéey ak liggéey sëñ bi na fa mel rek war nañu delu ñaanal Cheikh mohammed Murtada sant ko bu baaxa baax di sant tamit sëñ Mamour Mbacke mi nga xamanteni moy mooy jëwrinam moom eggale liggéey bi liggéey bu rafet ba tey dara sookewu ci dafa mel ni dafa gën a yokk mhm. kon ñu xam ne sëñ Touba li ñu naan moo mën kanamam mën ginnaawam mhm. kon leer na rawatina fii di Europe ñu leen di sant bu baax mhm. kenn du ñoom macha allah ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal waaye comme ni mu ko waxee rek ni ñuy dundalee film bi dafa yéeme lool na nga gis ni maanaam tënku wuñ ci màggalu Touba mbala Poroxaan wala yu demee noonu waaye ñoom dañoo am seen bisi xasiday bopp lu mel ni ci Bamba day lu mel noonu la amee ci Italie noonu la amee ci Espagne noonu la amee France fu nekk rek ñu ngi fay dundal xasida yi te itam noonu noonu itam la ñuy jàngee alxuraan bi di ko jàngee xasida yi kon loolu day wane ne sëriñ bi ba tey rek euh, njàngale mi nga xam ne mi ngi noonu jàngalekat wallaahi wallaahi mhm. di jàngale li nga xam ne itam moom moo di euh, alxuraan waaye di jàngale itam téere sëriñ bi macha allah su màggal ñëwee nga gis ne ndeysaan euh, day nasaraan dinañ bëgg lool ndax seen biir yeeg yëpp rek day daal <laughs> day am embouteillage ama am yee dañu am <laughs> embouteillage te loolu wax dëgg yàlla ba tey rek ci mbégum safar la bokk kon xam naa ne rek dañuy daal di joxe li nga xam ne euh, moom moo di euh, ba tey rek ci benn fanu safar fële ca Touba ki nga xam ne moom moo di Serigne Mountakha itam wax na fa ay kàddu yu am solo su ko defee ñu daal di koy jëli daal dellu siwaat xam naa léegi tey li ñu dese ci waxtu daal di bariwul ko ñu daal di ànd ak waa daal dellu siwaat incha allah alhamdulilah amiin bakki amiin alhamdulilah alhamdulilah amiin bakki sëriñ bi ci waxoon nag mm-hmm. moom it boole ci boppam. amiin boole na boppam. amiin amiin amiin parce que boppam. amiin amiin woomatal na boppam. amiin bakki amiin amiin amiin amiin mm-hmm. mooy mooy ñaan gi. Mm-hmm. Mm-hmm. ginnaaw suñu borom mooy def ak dindi. may nañu taw feex sëriñ bi ba noppi waaye mu ko doon nag nii amin amin amin ci boppam moom ci boppam gën noo gàttal su boppam gën noo womatal boppam amin amin amin amin bàkki amin amin amin suñu jotaay bii mhm. من ميقف شو اللي راح لا إله إلا الله شو كنت سنترك؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله من الحمد لله رب العالمين يرجفك يرجفك يرجفك يرجفك الحمد لله الحمد لله يا الحمد لله الحمد لله ويا دفع sant ak soññu sant nan sax ci sant sax ci soññu moom baat boobu ñoo yàlla na nekk ci diggante boobu rek loolu rek la sax ci sant te sax ci soññu nag suñu bopp ci moom loolu rek la tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla Mbacke tabarkalla jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sax ci sant. Mhm. sax ci soññ suñu bopp ci moom. tabarkalla tabarkalla tabarkalla. loolu. Mhm. yaqin la ci ne. Mhm. yiwu àddina ak yiwu àllaaxira. am sikki sàkk néew ci.

xel mënu caa dara. Mm-hmm. ko xel mënu koo daj. loolu mm-hmm. rek dafa ci mm-hmm. sax sax ci soññ suñu bopp. ci ci gépp kem kàttan. ca géej ga si gën la jëf mbokk yi sant nañ leen bu baax a baax jaajëfal leen di sant bu baax a baax sëriñ Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi may ko wér ci kàddoom yu am solo yi nga xam ne rek saa yu génnee kenn du ko mën ci alquran Euh, macha allah yal na ko suñu borom euh, fayal kon ni ñu ko waxee rek sëñ bi moo boole ci boppam wommatal ñu boppam kon nañuy sant tey soññe mu nekk baat yoo xam ne wat mat naa bàyyi xel bu baax a baax te itam di ko jëfandikoo xam naa ci baat yooyu dañuy jaare jeexal rek soxna May ñu bàyyi la nga commentaire daal di tàggoowaal incha allah. <laughs> seen émission mbégum safar. Mm-hmm. jërëjëf na Jaminatu mm-hmm. di santaat bu baax sëriñ bi ndax mm-hmm. rusu wax ni moom moo fi sëriñ Touba ndax bam mu ko nekkagul sax ci zahir dañ ko dañ ko dañ ko dafa tege woon ci li neexoon sëriñ bi li ñuy wax nag euh, li li li léeg-léeg nga dem ci xew léegi ñu naan kaala gi ci bopp ci ndigg la njëkk waaw amee loolu la ñuy wax sëñ bi nag moom macha allah <laughs> moom xam nga euh, fi mm-hmm. place bi mu toog da koo daa joxoon ña fa ña fa na da leen da leen a joxoon wàccuwaay boobu mm-hmm. xëy na jàppul woon ni sax amaana mm-hmm. ci saaxeet dana ko doon ndax <laughs> ndax moom loolu loolu dundul yooyu moom ak taalibe moom ne ci moom waaye nag nañ buñ buñ ko topp ci loolu buñ ko mm-hmm. topp ci loolu nañ ko mm-hmm. jox cër bi ko sëriñ bi jox mm-hmm. euh, xam ne moo fi sëriñ Touba ci kaw suuf kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko fi loolu Mbàkke mu yàgg ànd ak ndax boo ko xoolee rek fotoom rek boo ko xoolee da ngay kontaan da ngay yëg ni am na lu ne ci moom kon ñu koy ñaanal bu baax yàlla bàyyi ko fi ndax mooy suñu suñu tawfeex kon di santaan ñëpp rek soxna Jamilatu di jéggal bu baax ci kàddu yi tasaaroo yi xam man moom dama xaw a <laughs> ma wax <laughs> waaw loo xam ne sax daanaka tegul ci xam-xam xëy <laughs> di santaan rek ñëpp di soññaal waa Tuubaa bu <laughs> baax itam ci ñu dalal gan yi te xam ne la ñuy def sëriñ bi lañ koy defal ndax bu fi sëñ bi nekkoon ci zahir mi ngi fi ci baatin waaye bu fi newoon ci zahir ñu koy gis ni mooy dalalal bu ay boppam ay ganam ndax wax nañ ni mas naa defaral boppam su ma juumut lu mu jëfandikoo buñ ko waxee dañ ne bàyyi leen ma ma liggéeyal sama bopp ndax ku ma liggéeyal jar ñu kon damay liggéeyal sama bopp kon xam bu sëñ bi demoon ci daara noonu la koy demee ñu xam ne itam Touba war nañ faa joxe ay worma ndax ni ko sëriñ bi waxee mm-hmm. wa maskani sallim minal fu jaare ba mm-hmm. ba bayit wa jeex mm-hmm. wajax ilaahi maskani tuuba abat mislas mislas mislas miha bi jaahi xayri man abat euh, ak itam yeneen bayit yoo xam ne sëñ bi wax na ko ci Matlabul Fawzayni nga xam ne boo ko liiree di xam ne daal sëñ am na cër boo xam ne jox na ko Tuuba waaye am na fonk bëgg goo xam ne bëggoon na ko bu dul sax ci Tuuba gi ci boppam waaye tëdd gi mu fa tëdd ci zaahir moom rek war naa tax ñu warmaal dëkk ba kon ñu ngi jéggal lu baax ci kàddu yi lépp lu ci jub ñu xam ne ci borom bi subhaanahu wa taala ak ndimbalul sëriñ bi mhm. lu ci dëng itam maa ngi koy tuub bu baax te di ko jéggalu du mhm. sama coobare matadi la rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu jërëjëf euh, soxna May Jéen ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am mbégte bu baax a baax nag macha allah euh, ci yombalal gim ñu yombalal ngir ñu mën a jot ci moom di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu fayal ñu ko euh, may ko itam li muy sàkku mu di ngërëmal sëriñ bi may ko itam ngërëmal borom kër gi suñu nijaay ñu koy ziyaara baax a baax tonton Pape ñu bàyyi la nga daal di tàggoo rek waxee suñu muntaxaay incha allah waaw jërëjëf soxna Jamila maa ngi lay dellu ziar bu baax mhm. di ziaraat soxna May ci kàddu yi am solo nee na kàddu yi daa tasaaroo waaye defe naa ne <laughs> ñu toog yokkuwaat nañ ci bu <laughs> baax a baax moom wax dëgg yàlla jàmbaar la nii lañ ko mhm. mas a xamee ci liggéey sëñ bi rek la nekk yàlla ci yàlla yàlla ci dajee ngërëmal sëriñ bi kàddu sëñ muntaxaay nag sëñ mhm. muntaxaay moom dañ koy ñaanal rek mu yàgg fi loolu te ndax liñ naan jëmmam rek soññu la mhm. rawatina saa su ne ay kàddoom mhm. na ngeen góorlu ci njub mhm. saa su ne da koy wax dégg nga kàddu gi mu wax nañ soññaat suñu bopp nañu sant waaye nañ soññu xam nga nit ki bu santee ci li ko yàlla defal ba pare waaye na xoolaat boppam moom fan la toll kon lañ xoolaat suñu bopp mooy soññu gi fan lañ toll ci liggéeyal sëñ bi tàmbalee ko ci jaamu suñu borom tàmbalee ko ci di suñu digganteeg sëñ bi liggéeyal ko tàmbalee ko tamit ci màggal gi nga xamante ni nee na nañ ma ci santale suñu borom kon màggal gi defe naa ni mm-hmm. nee na mm-hmm. képp koo xamante ni mu ngi koy fonk mm-hmm. bu déwénee di nga gis la muy rawee ka nga xam ne daaw ko fonk daaw ko fonk kon nag niñ naan dafa tàmbalee ci ci ginaar mm-hmm. ba gileem ba nag ak lépp loo am rek daf ko mm-hmm. ci màggal gi kon nag nañ miraas suñu bopp mm-hmm. lépp luñ am rek ilaa Touba fas yéene sant la sëñ bi bisam bi teg ko nag ci jaamu yàlla teg ko ci sellal teyit wormaal barab ba ndax nit dina dem fenn ngir defaroo fa waaye dafay mujj yàqu dëgg la kon nañ fonk bis bi fexe ba jéem cee defaroo ngir bu ëllëgee la lépp luñ ci mënoon rek ñu mën ci lu ko fawxa dëgg ñu ngi sant ñëpp di ziyaar ñu doon teewlu ñëpp uh, Mhm. in uridu illa al islah mastata'tu wa ma mhm. tawfiq illa billah mhm. kon lépp loo xam ne dëng na ci rek ñu xamante ni matadik doomu aadama la waaye nattu la rek daanaka yoon micro dafa metti waaye nag comme dañuy waxloo ci sëñ bi rek a wax ndax suñu bëgg-bëgg ci sëñ bi ak tolluwaay bi rek dëgg la dëgg la <laughs> ñu ngi ziyaar yi ñëpp di ziyaar ñi ñu bàyyi ci kër ga suñu borom kër ñu koy ziyaar suñu yaay ñu koy ziyaar waaw ñu ngi ziyaar ñëpp <laughs> <laughs> koy ziyaar ñu daal di ñaan suñu borom mu defal ñu màggalu jàmm mhm. lépp luñ ci def rek suñu borom nangul ñu ko soxna Jamila di ziar tamit borom kër gi sëñ Mbàkke yu fay dëgg la jërëjëf soxna Aram Beng Murtada te dañ dañ ci teg Mbàkke rek soxna Aram Beng Murtada Mbàkke <laughs> madame Mbàkke ñu ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal sant soxna May Jenn sant mbokk yi nga xam ne itam ñooñu la ñu àndaloon euh, ci liggéey bi ba mu mën a yem ngeen mën ñoo gis mën ñoo dégg tàmbalee ko ci sëñ Mbacke Mbodj euh, ci ñoom tonto bu Babacar euh, sëñ Pape Cheikh ñoom ñëpp rek daal ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñoom sëñ Mañaan ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal di ñaanal borom kër gi suñu borom defal ko jàmm ak tawfeex defal ko saadatu daaray ni di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp ñëpp rek ñi wooteeg ñi bëggoon a woote ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bëggee ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal ñu gën a góorgóorlu ci jàng alxuraan jàng xasida yi jaamu yàlla ndax ñu bokk ci inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafisuun kon mbokk yi di sant bu baax a baax sunu borom kër di ñaan sunu borom defal ko jàmm defal ko tawfeex sant suñuy goro tàmbalee ko ci sëñ xabbaan ak mbooleem rek mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon seetaan rek di leen jox dig daje incha allah si beneen yoon seen beneen émission mbégum safar incha allah fii ci Touba TV wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. رب من ca géej ga keroog ba mu lalee